وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد وكي ني سيتان تي ني سيتان في تي سين تيليفزيون دي تي في تي سين ايميشن بي ني تودي اكتب الاسلام دلو سي نين بنين يون اندات اك يين تي بنين تومبو وقتان اك يينيني غان دي لين دوكيل تي اجيما تي دي لين تي زياره di leen balu àq di leen baalu àq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi te tey nag comme niñ ko baaxoo def dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yeneen i gan ak beneen tomb waxtaan tey ñoo ngi fas yéene waxtaan ak yéen ci yow mu tadaamun li daaray kokki daara ji ñuy tuddee daaray kokki mu doon daara joo xam ne ci daara yi yàgg lool ci réew mi la doon daara joo xam ne ma maa yenn sa taarix fala yastati an yenn sa asalika histoire lu mu fàtte-fàtte mënu ko fàtte ci ay taxawaayam ak i géndeekoom ak lafa fa génnee ci ay borom xam-xam ak i taalu bi ñu defoon ko at mi passé ren ñu dikk di ko tollante at ngir programme bu ñu dëgmal te eh, ñuy fas ci yéene ànd ak eh, borom xam-xam bu ñuy tuddee oustaz Ahmad Mokhtar Diop moom ngeen jàkkaarloo ñu yegsi na ci place bi di ci ànd ak ak boroom xam-xam bu ñu tuddee oustaz Cheikh Niang yan jàkkaarloog moom ni yow mi yegg seen ci place bi di ci ànd ak borom xam-xam bu ñu tuddee alhaji sow ngeen jàkkaarloog moom ni moom it yegg seen ci place bi eh, ñii la yàlla dogal ñu fas yéene waxtaanee ak ñoom ci lenn kokki ci li xaj ci jotaay bi waxtaan wi nag nii lañ ko tëralee bëgg nañ ñu defal ñi ak leeral ci définition daara ji ñu tuddee daaray kokki mooy jan daara buñ xamee daaray kokki mooy jan daara bëgg nañ xam taarixu nas atiha kañ la daara ji sosu ñaareelu tomb bi bëgg nañ xam sabab yi leen motivé ba tax ñu jagleel daaray kokki bis buñ tuddee yow mu tadaamun lan la lu ko waral ñetteelu tomb bi bëggoon nañ xam importance su bés bii nga xam ne moom la ñuy tuddee yow mu tadaamun pour daaray kokki ban importance la am ci ñi nga xam ne ñooy xëri ji na daara ji ñu génnee ci daara jooju eh, ñeenteel bi ndax kokki dafa doon daara joo xam ne taafisul quran kese la dañu jàngal quran pour mokkal rek bàyyi élève bi mu dem wala dañ fay jàng al quran difa jàngale mboolem ummaatul kutubi wala dafa am nisam beneen boo xam ne dañuy jàngale comme école bu fekkee loolu yëpp am na façon njàngale ma nu muy demee bëggoon nañ xamit daara ju mel ni daaray kokki ñu xam ko di ko ay borom xam-xam yi li mu fa mu yàgg lool war am ay injazat loo xam ne réalisé lan la réalisé gum boobaak léegi lu des ci ay procès am ak ñan ñan la ko seqat ndax kooj koy mooy dem ci jubu boppam moom kenn kese wala dafa am eh, financement xaariji yu ci dugal seen loxo wala gouvernement moo ciy dugal loxoom. bi ci des mooy bu ñu ko temps bi mayee masuliyatuna tija ahaz il madrasa maanaam suñu responsabilité ñun ñëpp ci daara ji nu mu toll. tey eh, Ahmed Mokhtar. gannaaw bu ñu la nuyoo siyaare la balu la àq la àq di la jox suñu nuyoo groupe bi yëpp eh, nga jotaleen ñu ko waa daaray Koki eh, boo nuyee bokk yi bëggoon nañ ku ñu defal définition eh, daaray Koki mooy jan daara ak daara jooju kañ la sosu ci Sénégal loolu daal lañu ko wax bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wa nusalli wa nusallim ala habibi qulubina wa tabibi nufusina wa shafii zunubina abil qasim وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المتقين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Cheikh Ahmed Tidiane bi tey ñu ngi lay nuyu di la ziare di nuyu kilifa kër gi la jot di nuyu alxaaji Maxtaar Naar Lo ñu koy jàppale daara yëpp ak di nuyu sunu secrétaire général docteur Moustapha Wayel ak ñu koy jàppale docteur Jim Dramé ñëpp di rafetlu sa liggéey di la ñaan yàlla yàlla Euh, sàmm la yàlla aar la guddal sa fan sa liggéey rafet macha allah li yaa ngi def liggéey ba rafet rafet loolu ñëpp seede nañ ko ñëpp ci liggéey am na solo euh, pour définir daare kokki daare kokki benn barab la barab bi sunu borom yi subhaanahu wa taala yi nga xamante ne li ko tax a mooy defar ab jullit ba mu mën nekk ko xam ne ni dana mën a mel ni yàlla bëgg nit ki mel ni jëriñ boppam jëriñ ay mbokkam jëriñ réew mi alaaji amar saxir lo ridwanullahi alayhi ñi nga xam mi nga gane àdduna ñomre ci ñaari wajur yu tedd maam Ndiaye Lo ak maam Fatimata Dia muy ñaar ñuy saf sapp yàlla ñaari góor yàlla ñaari góor yàlla benn soxna su baax ñoom ñoo ko meññi mu jaar fa mu war a jaar fépp wut xam-xam bi mu jàngee ba ñëw dem ci turandoom maam Cheikh Mbaye mu natt ko fiq bi alxuraan ji macha allah xifzu mutqan xam-xam mokk mokk rafet fiq bi bënn luxa bi bënn arab bi bënn bayaan bi lépp ñëw di la ko waxaa ne ko nag lii lépp baax na waaye li ko gën mooy dem ca nag la sang ba nekkoon mooy dem toog defar jaam yàlla yi subhaanahu wa taala liggéeyal yàlla ci la ñëw na kokki 1939 jamono joo xam ne jamono ji metti ndax 1939 ci la deuxième guerre mondiale tàkk adduna bi jàmm amu fi dégg nga conséquence xeex xeex eh, guerre bi di am ci kii bi surtout ci réew yu ndóol yi ku mel ne suñu réew lekk amul feebar bi feebar kenn amul jàmm rabbaani gi mu doon dund ndax yàlla moo wax ci alxuraan ak ren kuunu rabbaaniyiina bimaa kuntum ta da ngeen nekk saf sàpp yalla saf yalla gi nekkoon ci nga xam ne bi nii gëm yàlla ama ko ci sawara duñ dàqali ko loolu moo taxoon moom mu gën ni yàlla mi nga ànd ak moom dama man kaana laa maahu laa yubaali loolu ci la yóoroo ci yàlla nag samp daara ji toog ngir lan ngir ku ñëw mu jàngal alxuraan karim ngir yàlla yitteem eggoon na ci foo xamante ne bi nii man eh, bi ma jàngalee farid di naatar téeréem boobu ñu wax tarkiyatul awliya imaamu junid al iraqi ba gis si moom mu ni toog naa ñaar fukki at yoo xamante ne kabbaru armal bu imaam musuma raw ñaar fukki jooju maa ngi gisaat ci Alaaji Ahmad Saxiir radiyallaahu anhu alayhi lam fa nañ fa nekk lépp ci daara ji yitte ji mu amoon ci boppam yàlla maanaam bi ñu julli jotee moom mooy rëdd sàppe yi xam boobu daara ji mag ñi ñooy jullee ci bi jàkka ji waaye moom ci biti lay ci waaye waaye xale yi ñooy jullee ci biti ci mbaar mi waaye mooy taxaw ci commencé fii lay mag mag rëdd sàppe ñëpp taxaw dañ fa nekk lépp da su set mooy jiite julli bu jiitewul julli rek daa nekk keer wala kër la ci daara ja wala mu nekk Bagdad wala mu nekk Minnan te fa am na jàkk ma fay jiite kon ku amoon yitte la ci boppam diggante ma yàlla yitte yooyu nag la wàll ci la wàcc ci donga yi ngir defar leen ñu nekk ñu nekk di baax 1939 de 19 58 daara ji ay mbaar la woon ak i néegi ñax mooy néegi ñax léeg-léeg mu lakk am na jour boo xamante ne day day dañuy julli ba ci digg daara ji daara ji tàkk da dañuy waaju julli rek daara ji ñu jëppi tàkk mu ne dem leen julli ji góor yi mu ko nettali bi ñu bi ñu jullee ba noppi lépp lakk ci laa doog a dégg maanaam sax mi min ayatin anum siha natti bi xayrin bi xayrin minha aw misliha kon laa ko doog a dégg ndax waa lu wër kokki tamit kokki daara ja dañuy ay jàmbaar trop maam maanaam dëkk ba kër yi dëkk yi ko wër ñëpp lu waay am andi lu waay am andi ñaa defar sàkket yi 1958 nag ci la mag ñu baax ñoo ñëw alaaji alaaji waat xulle alaaji mat bas jóob ak ñi mel ni ñoom def benn équipe ni sëñ bi dañ lay jéem a jàppale ngir yàlla ñu defar si jaamu ji zinc mu nekk zinc ba 1971 73 ci ba am am solo yàlla na ko yàlla fay yiw jaam yàlla jaam gërëy daara ji daara ji daara ji daara kokki di dox kon ci gàttal daal 1939 ci lay sos daara nekkoon te mooy defar jaam yàlla yi gën a nit koo xamante ne bi nii day sa sàpp yàlla ci xam-xam xelam di dund ci xam-xam xelam di dund ci xam-xam xam-xam bi di alquran sunna si sallallahu alayhi wa sallam ruham day day leer am saf sab yaram tamit dëgër nax tamit ku bëgg liggey ci l'islam bi fo nga am ñaar al bastatu fi ilmi wal jismi maanaam la yàlla waxon ki inna allah astawa alayhi wa sallam fokk ñaar yoy am maanaam dëgër yaram bu dëgër alama saxir lo ko ko lol ko bay won xel la na xam liggey bi dafa lay dëgër waye xam-xam xam-xam bu wér maanaam ñun ñu fa nekkoon kenn ku ne mën ngaa seede ni ni asamaan si tiime suuf si noonu la tiime donge yi ci xam-xam ci mbaax ci sell ci jub ci maanu ci bëgg yàlla bëgg yonent bi ba noppi nag ndox mi di wàccee kaw asamaan di dundal suuf si njàngaleem orientation ay ñaanam ay jubbanteem noonu lay dundale xol yi donga yi noonu lay dundale seen roo noonu lay dundale seen xel kon góor gu nag yàlla fay yiwu bëree bëri ci gàttal daal loolu lañ mën a tënk mbokki nañ eggee ci des Eh, jërëjëf euh, sëriñ bi euh, bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne euh, daaray kokki daara la comme benn daara ci daaray Sénégal yi nga feeñal ne odduwul mu assis ki nga xam ne moo ko fonda mooy Cheikh Mokhtar Lo alaaji Ahmed Sakhir Lo wane ne bi mu koy formé booba jàng na ba pare nekk ci Louga ci ron kilifa gu ñuy tuddee maam Cheikh mbay Eh, ba kooka joxoon ko ndigalal na ko li gën ci loo war a def mooy dem dekki nekk ci lu yonent bi nekkoon mooy jàng ak jàngale mm-hmm. eh, mu door a départ dem kokki mm-hmm. mu tombeek eh, at mu jafe ci àddina bi mm-hmm. ndax crise mondiale la woon mille neuf cent mille neuf cent mooy commencement guerre mondiale ndagam ñi ko sooke woon sax te amoon man-man yi ba tàbbi woon ci ñoo amoon problème faf ñi nga xam ne ñoom ku sañta bañ na ngooy ndeyam ñun dañ leen doon rungul leen yóbbu suñu réew yi ku ci nekkoon jamono booba dara du sa yitte lu may jàngale alxuraan beneen keneen nit la woon mm-hmm. wax nga ne eh, ak situation bi li mu doon jafe-jafe jamono bi li mu doon xat-xat moo sayto woon njàng ma te waxtu julli bu jotit mooy mooy dem di organiser sàppe yi mm-hmm. ba loolu la ko doxalee mu doon loo xam ne borom yi borom yitte la mm-hmm. eh, feeñal nga ne eh, kon na ni la ko yitteeloon ci lu sori ak lu jege bu ma la déggee. mooy former nit koo xam ne dafay saf sàpp yàlla. former ji njëmm joo xam ne àddina ak lu coow li bëri bëri. ak lu rythme yi bëri bëri dara ñorut ko lu dul yàlla. mu mel ni loola mooy li ko jox. moo ko taxit kum formé tàggat la. jëmm jooju moom ngay niit def ko muy sa nituwaay. kon mel na ni euh, exemple la royukaay la woon. tey euh, Cheikh ñu dellusiwaat ak yow ci looy ñu yokkal ci définition daaray kokki ak euh, li nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Sakhir doon liggéey foofu euh, noo noo ñu koy mën a yokkalee wasalaatu wasalaamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Oustaz Cheikh Tidiane bi tey ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant di la gërëm maanaam ci taxawaay bu mag bi nga am ci lislaam di topp tamit émission bi nga xam ne mooy ëttub lislaam di émission bu jullit ñu bare bare bare di suivre ci àdduna bi muy taxawaay bu dëgër dëgër boo xam ni euh, depuis ay années yu yàgg-yàgg maanaam yaa ngi koy taxawee lislaam yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi di nuyu borom kër gi di nuyu képp ku ñuy seetaan ak ñi nga xam ne alquranul karim ñor na leen di nuyu sunu magi daar yi nga xam ne ñoom lañu bokkal palaato bi euh, daaray Koki comme ni nga ko waxee euh, sosu geeg ca aju sunu magub daara am na lu mu ci jot a indi muy oustaz Ahmad Makhtar Diop. Euh, comme ni mu ko tàmbalee rek xam nga daaray kokki mënoo ko tudd te tuddoo sëñ Mat Saxiir mi nga xam ne moom moo ko euh, sanc sëñ Ahmad Saxiir Lo euh, soof tuuti rek ci li mu wax ndax sëñ Ahmad Saxiir Lo rahmatullah alayhi rek daanaka mënoon naa nekk émission bu yaatu waaye gannaaw daara ji la ñuy wax ki ko sanc mooy kan euh, sëñ bi ñëw na ci liñ ci yokk rek euh, yenn leeral yoo xam ne comme sëñ Mat saxiir mi ngi gane si àddina 1903 1903 ci dëkk bu ñuy wax Ngeer Malal gaaree ko ci 1939 defe naa diggante ak 1939 ki fa ami at xam nga ni waxambaane la mhm. kon bi laxasu di mel ni demul ba ci njeex mu fase lépp aayanteeg suñu borom mm-hmm. kon loola lu mat a leeral la mm-hmm. euh, waxaat tamit maanaam liggéeyu mag ñi am solo gi mu am solo nga xam ne senegal ñëpp bokk sëñ Mat Saxiir boo ko tuddee li nga tudd euh, maam Maxtaar Ndumbe Diop rahmatullah aleyhi bi nga xam ne moo sànc kokki moom it danañ danañ ko tudd ñoom ñoo dalal sëñ Mat Saxiir maanaam ca réew ca dëkk ba teewul moom maam Maxtaar Ndumbe Diop moomu moom moo jàngal maamu sëñ Mat Saxiir bu ñuy tuddee alaaji Maxtaar Naar Loo bi nga xam ne moom lañ tuddee sëriñ maxtar Naar Loo mii ma nga xam ne mooy directeur daaray kokki bi fii ñu nekk Euh, maam Maxtaar Ndumbe Jóob ba mu jàngale alaaji Maxtaar naa loo ba yewi ko daf ko wax na ko may naa la nga dem sanc condition bul ko defee ci dëkk teeru bul ko defee ci say mbokk hmm. loolu am njàngale la hmm. Hmm. mu dem sanc dëkk bu ñuy wax ñomre ca wetu ñomre ci la sëñ mat saxiir miy ganesee àdduna i imaam kon kon moom maamam foofa la jàngee ji woon ki ko jàngal kokki la sancoon ba mu demee ba turandoom ki ñoo alaaj ahmad saxiir mbay ba mu ñëwee eh, sëñ bi tudd na ko sànq ba mu koy yebal kokki ne ko demal jàngale ji ngir yàlla demal jàngale ji ngir yàlla mhm. ba mu ko koy wax daf koo def ci bisu gàmmu nga xam ne ñëpp ñu ngi feetu guddi yonent bi sallallahu alayhi wa loola mu ne ko yow lii nii du sa cër demal nga nga liggéey mhm. demal ca liggéey ba jouru gàmmu boobu mu ngi toll premier mai mhm. première mais ñun ñëpp xam na lan lay toll ah, ñëpp dañuy tëdd di noppalu ah, ah. journée du travail lañ koy tuddee mu xamal ne ko yow amum noppalu demal ngi liggéey kon am na yeneen sas bu mu ko sasaat ba mu demee njëkkeewul kokki waaye dafa dem dëkk bu ñuy wax ndàlla ndàlla mu war a toll ci juróom ba ci ñeenti kilomètre ak kokki fa la njëkk sanc daara ja dafay at yu néew demaat ba ci yàgg delluwaat yokkiwaat alluwoom parce ñu ngi koy fàttali ba mu jàngee alquran ba mokkal wëriwaat na tariwaat ci ay bërëb yu baree bare ci réew mi ba mu fa jógee delluwaat ci sëriñam bi maanaam turandoom alaaji ahmad saxiir mbay mhm. mu delluwaat fa mu ni ko damaa bëgg nga yebal ma ma jàngiwaat boobu ba tey nekkete moom def na première mission am na beneen mission bu ko desee mhm. ba mu ñëwee mu yebal ko ci ay gox yu baree bare ci Sénégal pour mu yokkiwaat fa xam-xamam ba mu fa demee ñi fa dajal bokk na ci alaaj Abdou Aziz si Dabaax ibnu alaaj Malick si bokk nañ jàngandoo daje nañ sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu Xaadim Rasoul daje nañ ci njàng euh, maam Alpha Amadou Seck alf sëñ Alpha Seck mi nga xam ne nekkoon na xalif euh, général bu Cenaba mm-hmm. daje nañ jàng ci dëkk bu ñuy wax nguy béy mm-hmm. kon gis nga ak dem ci jaamal saalum dëkk yu nekk ci Sénégal teg na fa tànkam pour jàngi mm-hmm. loola daf koo joxaat beneen culture boo xam ne ndekete moom ba muy samp daara ja warul woon àgg fii rek ci yem ci diggante Louga ak Kokki ak ñoom rek waaye laaj na mu am culture boo xam ne àdduna bépp la war a dajale. ku nekk daf laa war a xam. moo tax bokk na ci li yàlla mayoon boo ñëwee nuyu ko mu ne la noo sant nga ne ko ndàngam mun la ah yow de fi nga wax dëkku fa fële nga bokk. Mhm. da nga koy wax sa sant rek mun la yow de bu fekk fa nga dëkk mun la ñii ñooy say maam. boo fa dëkkul mun la dëkkoo fa leneen la la fa yóbbu mm-hmm. waaye foofa dëkkoo fa kon sëñ mu saxir tàggat googu la ko yàlla may ba nga xam ni ñëpp la xajoo mm-hmm. moo tax ba muy sos daara ji xajoo ñëpp la ko la ko sosoo mm-hmm. moo tax boo daan ñëw ci moom <coughs> du la laaj sax maanaam ban tariqa nga bokk wala déedéet danaan tariqa yëpp benn la xaasi xaasimuhal mustarak mooy ñëpp dafa tegu ci yoon yàlla mm-hmm. moo tax bari na li doon tari wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi mm-hmm. walan yahida mm-hmm. sawaun intama ilal tijaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum ala sawaab ku nekk dalay bàyyi sa mi nga sol la wékku ko fële boo jàngee ba pare nga solaat ko nga dem kon ñëpp la xaja woon boo ko doon laaj yow ban tariqa boo mun ko man de ana muhammad yi sunni yi maanaam dund sunna yent bi sallam ñëpp tariqa yëpp ñoo bokk daa wax bul wax ne man de dong su ma koy jàngal dama fas yéene maanaam su ma amoon dama koy jàngal ngir yàlla ah. di ko fay di fay waajuram di fay baayam di fay yaayam di fay dongo bi bu paree li muy am mu dem buñ gisante ba yowmal xiyaam loolu la daan bari li muy wax ah, donc kon fi daara ji àgg nii tey xam naa bu ñu demee ba ci question yi ci <coughs> danañ ko gën a leeralal eh, jërëjëf euh, Cheikh mel na ni euh, gën nga taw yi euh, li Cheikh Makhtar doon wax léegi mm-hmm. mel na ni Cheikh Ahmed Sakhir mooy xodduwul mu assis mm-hmm. waaye leeral nga ñu ab juddoom mi ngi nekk 1903 mm-hmm. ci ngeer malal nga feeñal ñu ne euh, li gën a kéemaane jamono bi àddina di soxla doomu adama àddina di soxla boppam war nit ki di soxla boppam war wut koom-koom la la fase àddina doon doonte takku ko woon mais la ko fa yel bandi ne lu du yàlla wut ko loolu du yàlla soxla soxlawu ko xanaa asaas dem former daara pour jàngale ji nga wane ne mu ne ci njàng ma ne ci njàng ma mu mujj gi mu del siyaat gisaat maam Cheikh Mbay turandoom boole laajaat ko ne ko damaa bëgg laxasaat diggante laxasaat boobu mu laxasaat wane nga ne mel na ne suñ ko seetee dafa am lu ci doon jàng doon na jàng xam-xam waaye doon na jàng aadaay réew mi ak culture am maanaam culture réew mi duggal duggalante civilisation yi ba tax na feeñal nga ci ne parfois su ko nit nuyoo wax ko ne nga sant wala foo dëkk rek mu limal la say askan loolu mu doon loo xam ne du loo xam ne lu yomb la mel na nit la taxoon mu doon ko def mooy bu forme daara ji ubbi ko ne amut parparloo amut boddee daara ji pour ñëpp la nga feeñal ne xàmmeewutoon murit ak tijaan ak leneen dafa jàpp ne murit bi ak tijaan bi ak foo mënti ki féetee ñàkk la bokk ci benn tarixa ñëpp yàlla leen tax a jóg kon comme yàlla leen tax a jóg nag séparation ku ko cay dugal dese nga xam li xew lan la mais soo ko séparé rek dese nga xam li xew parce que ku ci mënti ki doon dawoo jëm ci iblis yàlla nga jëm kon su boobaa nañ nangu ne ñoo bokk yoon wuñ jëm mais nag fi ñu ko jaaree moo bokkul nga feeñal ne amoon am na lu ko takkee woon ak ay boroom xam-xam ay kilifa ci réew mi ñu dajee cim njàng ku mel ni Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh rahmatullahi ku mel ni Cheikh Abdoulahan Mbacké rahmatullahi alayhi ñoo ñi nga xam ne kenn ku ci ne kilifa la woon boo xam ne maa ma yan sa taarix histoire lu fàtte-fàtte mënu leen fàtte te dajee naag ñoom ci am njàng nga wax ne dajee naag maam Alpha Seck ci njàng ñu mel noonu da mu dajee toon nga xam ne ñooy génération bi mu bokkatoon doon dund génération bi mu bokkatoon doon jàng mel na ni loola firndeel na ne bi mu toogee it am benn yitte lu may xam ne ñëpp a bokk ñëpp a loolu la feeñal ca daara jët ba bés ni que tey loolaa fay dox tey ñu dikk ci mbokk mi alaaji comme yow dañu dikk yow rek ci même question bi parce que li wolof dañuy wax ne lu dul doy loo ci am mu doy te benn question bi rek war nañ ci mën def waxtaan tout moo tax ñu dikkaat ci ci taarif bi loo ñuy gën a yokk xam nga Cheikh am na yeneen yu mu indi yoo xam ne mbokk indi wu woon loolu bismillah auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina maulana muhammad wa ala alihi wa ashaabi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi lay gërëm bu baax Seex Tijaan bi tey ci taxawaay bu rafet bi ak yitte ji uh, di la ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu gën laa dollee kattan uh, barke liggéey bi ndax yaakaar naa ba ñu dajee yàgg na ci émission boo doon def ci daara yi hmm. nga fekk ñu ci parcelle ñu yor daara ja maa ngi koy fàttaliku ba baag léegi yàgg na yaakaar naa 2004 la woon hmm. kon ba léegi incha allah ñu ngi ñu taxawaay bu baax baax di ñaanal kër gi itam yàlla na ko gën a barkeel euh, yàlla yokk fi barke euh, jubale jaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk di fi yëngatu yàlla kàtt na leen balay seen yéene lépp mu sell te yàlla def ca ndam euh, di ziar ak nuyoo itam mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak di ñuy déglu ak fu ñu mën di nekk Euh, di leen ñaanal yàlla di leen ndokkeel itam di sant sunu borom bi wa taala bi mu ñu fekkelewaatee bis bi nga xam ne daa dañ ko amal euh, mu mu may ñi ñu fekkewaat ko ren kon ñu ngi sant yàlla ci loolu te di ko ñaan yàlla mu fekkeloo ñu ko ay at yu bëree bëri te lépp loo xam ne def nañ ko ci ngir dimbale njabootuk sunu borom bi tabaaraka wa taala yàlla nangul na loola alhamdulilahi rabbil alamin li euh, Ahmad Maxtaar wax Serigne Cheikh wax ko dama ciy dolli lenn rek ba mu xam ne li Euh, diggante 1903 ba 1939. Euh, sëñ bi mu sosee daara yi kokki nii nga xam ne 1939 la ko sos lu jiitu woon ba mu sosee daara jooju ba mu dem yàgg muy dem di jàngiwaat. da ko bàyyee euh, wëllëre bu ñu wax Baye Moustapha Dia bu nekk Thiamène. Baye Baye Moustapha di bi nekk Thiamène. moom la jox daara ja laxas dem wariwaat jàngiwaat. ndax gëm na ne moom liggéey bi lim ci bëgg ak lam ci yéene daal am na lu ko dese. ba tax mu wër ci gox yu baree bari. Euh, am am lu mu fa dollee ko waat ba tey itam wër gi day delluwaat ci jàngaat euh, réew mi ba gox bu ne mu xam ña fa nekk duñ fa féete ndax li mu wax ne ku ñëw dalay wax euh, fa nga dëkk man mi dama caa jaar hmm. ndax bi may dem kokki maa fa yóbbu sama bopp booba xaw moon fa may kokki hmm. ma dem mu ngi tolloog nisfu saabaan moo romb daarul mooti ñuy def seenu màggal waaye ma laajte oto bu jëm kokki ba ñu wax ma ko ma jógee tubaa dem àgg fa waxtu wi tisbaar bi ma laajtee gon yi ana sëñ bi Eh, dañ ne ma sëñ baa ngi ci buntu bi ma fekk mu tëdd ci suuf eh, jóge ci jàkka ja ma daal di koy nuyu ñu ànd dem ci néegu mu wax ne ma foo dëkk ma wax kooku mu ne ma ah yow de sa maam hmm. tuddal ma sa maam ki nga xam ne moo jur sama papa muy alaaji Baara Sow la ma nga des ma nga faatoo ci eh, ajug màkkam ci la ci la dese hmm. ma ko kooku de moo jur ki jur sama baay mu nekk li ma ci famille bi lu bare bari ne ma koo fi xam ma ne ko xaw ma fi kenn mu ne ma ah, xamu fi kenn te am fi ay bokk ma ne ko a ah, wax dëgg xaw ma leen ndax man mu limal ma ñi fi nekk ki nekk secrétaire général nii di Moustapha Wayel fi la jàng ba nekk Arabie Saoudite mu ko war ko déedéet te fekk maa ngi ñoo bokk euh, yaayam ak sama papa ñoo papam ak bokk benn baay muy sama doomu nijaay taxaw ma foon mhm. kon li may firndeel ci li mu wax dafa jàng dafa jàng réew mi laata muy toog mhm. mhm. euh, alhamdulilahi rabbil alamin kooki li ko indi fii mooy tawakkul ala allah yoo xam ne saxiir loolu léppam mooy da ko dellu woon sunu borom bi tabaraka wa taala Euh, moom dafa dafa jëfandikoo woon aaya bi ne wa man yatawakkal alallaahi fa huwa hasbuh waaw moom léppam da koo joxe woon euh, te ñun ñi nekkoon ay tutànk nekk ci daara ji dañuy yëg ni Ahmad Maxtaar wax ne moo nekkoon asamaan si tiim suuf si noonu la nekk woon ni mu tiimoo xale yi euh, ni la ni la tiimee tutànk ndax maa ngi seetlu benn bis booba maa ngi nekk ci daara ji amee tànk bi metti Euh, tànk bi nag moo ma dimbali sax ba njàng ma gën a gaaw ndax dama ko faa indiwaale dama fa indiwaale tànk buy metti mhm. ba ñu di ma xàmmee ko sax naan ma borom tànk bi bu bu xëyee subateel man bu may jàng damay gis mu jënd caaf a ko ci mbub mi toog ci biir daara ji di ko séddale mhm. man bu ma romboo ak sama dokk bëgg a dem damay jàpp ne gone yi ndaw yi lay jox mu ne ma kaay ñëwal Euh, yaa leen mag waaye dafa am lu la téq daal di tibb ci gerte gi jox ma euh, daal dina ma dawal na nga dem jàngi waaw góor dawal nga dem jàngi ko defee kon li li Ahmad Maxtaar wax ne yërmande ji ci ay ay ay tuutànkam <laughs> mhm. yërmande ji ak jege gi mu leen jege mhm. loolu moom kiimtaan la ci woon koo xam ne moom moom rek moo ko moom la ko yàlla jagleeloon alhamdulilah rabbil alamin loolu it mooy feeñ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo génne kokki mbooleem ku génne kokki foo dox ba dajeeg sa morom mi génne kokki da ngeen di jàpp ne yéen bokk ndey ak baay euh, bëggante gi ak yërëmante gi ak dimbalante gi loolu mooy sabab euh, ndaje mi nga xam ne moom la ñu waajal kon ci njëmbat lu si Ahmad Saxir loo jëmbatoon ci ci ci ci ci ci njabootam la. Mhm. ba daana wax ne sax suñ ko mosaan laaj na ko euh, sa ginnaaw ñan ñooy taxaw daara ji. Mhm. ndax yàlla mooy ko woon doom ci ci ci deret. Mhm. xam ne doom joo xam ne moom moo ko jur ci deret amu ko woon. waaye amoon na ak ay doom yoo xam ne moom mooy ñi ñi yar. kooku masaan laaj dala wax na kenn du ko taxaw lu mooy ñii ñoo koy taxawu ji ëllëg muy mm-hmm. tu tànk yi ñoo koy taxaw ji ëllëg te alhamdulilahi rabbil alamin euh, maa ngi seetlu li Ahmad Maxtaar wax ne moo daan taxawi julli mm-hmm. àggoon na ci sax ba bu waxtu julli jotee day euh, at yi weer yi mujjee dund maa ngi ko seetlu waxtu julli jotee day tëj néeg bu ne dafay dugg tëj ko génn dafa nekk na nañ dem ca jàkka ja bu ñoppee ñu tëj at buntu daara ji buñ jullee ba sëlmal mu dugg ci biir daara ji di wër koo xam ne julli wutoon mu jàppale yóbbu la Daaru Salaam tëj la ngir ñàkk julli ji ko loolu ci ay weeram yu mujj man loolu yëg naa ko nga xam ne fonkoon gum fonkoon julli fonkoon gum fonkoon jaamu yàlla fonk gum fonk itam euh, liggéey ndax day jëmbat euh, bépp donga boo xam ne jóge nga kokki jom ji yàlla yi def ci yow ci ci nangoo liggéey jom ji yàlla yi def ci yow ci ci ci bëggante ci bañ a am benn benn benn ñooru ci loo xam ne dafa lay indil njariñ loolu alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa kon li mu doon jëmbat mooy jëmbat xeet woo xam ne ëllëg si bi day saf sàpp euh, diine waaye itam day saf sàpp ci nangoo liggéey ngir réew mi jëm kanam. Mhm. loolu moo doon yitteem. jërëjëf euh, Oustaz Alaaji Sow mel na ni euh, gën nga leeral yow it ndax jotaay bi nga tudd nii léegi ci ba ngay nekk parcelle. Mhm. muy jotaay daar yooyu ñu daa dirisé. Mhm. ndeysaan bu ko nit tuddee rek sama xel faw Baye a Sarr muy papaay Lamine Sarr bi nekk Daaru Salaam dafa doonoon koo xam ne jamono yooyu jotaay daara yi daf ko def émission bu ko dégloo ba pare bu aajo corrigé moom mooy corrigé buy naq ci daara joo xam ne xam naa Cissé lañ sant ah. eh, njàng ma doy waar lool bañ pare moo mu ne Cheikh Tidiane mu ne mu ne ma dama bëgg nga jël sa matuwaay xam ne émission bi moomoom too ko mm-hmm. ñun ñoo ko moom koo fi invité baaxul bu ko jàllale daf ko defoon émission moo tax bu ñu ko tuddee rek faw sama xel mi dem ci yow yal na yàlla sa mbërtal yéen baa mel na ni nga ne bi muy jógee ko foofa di jàngiyaat joxoon na daara ji ñu tuddee bàyyi Moustapha Dia mu dëkk Thiamène pour mu continuer eh, liggéey bi bëggul mu am rëq-rëq bëgg na moom bu fi nekkul tamit na affaire bi continuer ñu déggee ci sama xit ne eh, waman yatawakkal ala llaahi fa wax boobu jooju yàlla wax fu daara ji yegg looloo ko fa yeggale jàppoon na ne yàlla lay liggéeyal yàlla ki ko sant liggéey bi du ko seetaan mu ko mu doon nag lu jafe eh, situation bi ñuy am ñun en tant que jullit tey mooy d'accord nañ ne ay jullit lañ mais wóoluwuñ yàlla mais ku sama borom tabaaraka wa taala sa engagement rek mu jàppale la ak lu coow li bëri bëri bëri moom fa nga jëm da fa yegg loolu nag moo xaw a jafe ndax parfois nit dafay tiit nit dafay ragal mais boo jàppee ne fi tiitaa nga nekk yàlla nga fa placé rek dem mel ni loolu lañ déggee ci sa wax ci moom eh, feeñal nga ne ku amoon de ci tout tànk yi la hmm. Eh, nga gis nga natt sa bopp ndax tungu ne teen ñu natt takk ndeer mm-hmm. yow ah, fekkee nga ah, ah. nekkoon fa jafe-jafe ci wéra mm-hmm. mm-hmm. mu boole la ca ñooña eh, nga wane ne it bi ñu ko laajee boo fi jógee ëllëg comme yàlla dénku koon takk kuy kuy continuer daara ji wane woon na ko continuer lu may njaboot gi eh, mu doon wax ju am solo wax ji nga may wax ni dafa may fàttali jamono yi may nekk keer di jàng uh-huh. dafa amoon benn benn benn docteur bu ñu daa wax docteur Butrus Butrus Gali Boutros waaw mu nekkoon ci ministère euh, affaires étrangères Égypte waaw euh, ah, dafa amoon benn mu xaabala bu ñu ko defaloon ci télévision Égypte uh-huh. euh, journaliste bi laaj ko moom question bi ndax amutoon doom moom it uh-huh. amul doom journaliste bi laaj ko ne ko niñ la xamee ci àddina bi say india saar say liggéey yëpp soo fi jógee fa ma baax del mawt ndax duñ la fàtte mu ne ko kenn du ma fàtte uh-huh. parce que formé naa kasa alaaf min talamis ci jaamia bi ñi ma formé leen ci corps diplomatique duñ ma fàtte ñooy ñooy samay doom mu nga waxee loolu sama xel mi day tay jazakumullahu xeyr ahmed waxtaan bëggoon nañ xam asbaab yi sabab yi tax ñu xëy rek jagleel kokki benn bés tuddee ko yow mu tadaamoon lu waral loolu sabab yi lan la waaw waaw bismillahi rahmaani rahim xam naa ci sof ci li nga wax. Hmm. man dama def benn conférence canaba. waaw ah. canaba ci alxuraan karim. Hmm. bi ma daaneel am ku jël kàddu man fu ma gisee ku jàngal alxuraan njàng mi neex. Hmm. damaa ne kii doomi la. ndeysaan ah. Ah. ma gis ko jàngal alxuraan njàng mi neex rek. damaa ne kii de doomi sëñ ma saxir la. lu mu la jël sax kooku la la jaawal. nga xam ne yàlla dafa nekk daara ji yéeme xam daara joo xam ne quatre mille cent quatre et un jàng. quatre mille quatre mille ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci ay donga ña nga fa. 4181. ña ña ña ña donga ña nga fa dafay jàng tey tey actuellement ña nga. jamono bii ngi fa waaw. Hmm. xanaa mbokk nañ ñi gën a gën koo leeral. Hmm. waaw nga xam ne seen ndékki du tardé. seen añ du tardé. seen reer du tardé. ku feebar ñu faj la fa ñu tëdd baax. seen courant seen lépp amul lenn loo xam ne kii ku ci feebar médicament ñu ngi kii te lépp li wajhi llaahi subhaanahu wa hmm. kooku am na loo xam moo ci war jullit yi moo tax tamit c'est li nga waxoon léegi si ma saxir radwanullahi alayhi bi mu ne sama ginnaaw sama sama doom yi ñooy taxaw daara ja ñi génn waag daa daay mag ci dañ li jënd xam ne ñoo am na leen war a ca daara ja te ñu nekk na kenn ku ne ñu xamal ñu xamal jullit yàlla yi ñu baax ñi ñu bëgg a def lu baax ñu leen barab ba ngi nii boo xamante ne képp ku bëgg a def ci yoonu yàlla barab bi barab bi barab bi ma nga loolu loolu la ñuy joxe nag moom la ñu dajale di ko yëpp di ko jox sëñ ba mu ngir mu ngir mu dimbali ko ko ndax daaree kooki daara jo xamanteni bi ni sima saxir moomu ko moko jité won woon na waaye bi yàlla subhanahu wa taala sima saxir gis nga li ñu wax li waajoo xoon ni bi mi tag gaay baax yi ne daxalu fuqaraa ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju qawmun faalu xeyran faalu wa ala darajin aliya daraju mom da ci bok ndax ñu bi mi gën aduna lim bàyyi ci alal yoo xam moom moo ko moom juróom fukki dërëm ñu gën aduna waaw mutu juróom fukk ñeent fukk la ak weccat dégg nga daal li mu soloon ñun dañu ko jëriñoo ndax dañ ko dabb daa xewam kii gisuñu lu moom. léegi yére bi yére bi ndeysaan yére bu bu mu soloon nga yére bi bu la ba mu ne xanaa moom lañ jël def ko ay morso ñi koy doon ay soxnaam kenn ko jox la ñu jox la ci benn moom am kenn muy rasu ko lépp daa di jekk lépp daal di jekk moom maanaam daana waxaan benn aay bu nekk yàlla wax innal amra kullahu lillah ko moom <laughs> lépp yàllaa ko daa dee ko lépp lépp lépp yàllaa ko moom waaye nag boobu lay doog am ndax li imaam Ali waxoon maasa wajada man faqadak wa maasa faqada man wajadak lan am ku ñàkk yàlla waaye lan la ñàkk ko am yàlla moom boobu boobu la boobu la am yàlla loolu moo tax nag ñi fa jóge woon ñu bés boobu bés dafa xamante ne bi nii ñi kenn ku nekk kenn ñi nekk Dakar ñi nekk Kaolack ñi nekk ñi nekk ñi nekk Tamba ñi nekk Fouta fu waaye am kenn ku nekk boo gisee koo xam bi nii yàlla ñor na ko nga waxtaan ak moom xamal ko daaree ko ki li muy liggéey suñu waxtaan na la mu yor daara ji ni muy ni da koo doon moom dafa maanaam qualité yi nekk ko suñu mastaxir yàlla nag yàlla sàmm gën koo aar guddal fanam dafa nekk ci moom taxaw taxawaay bu rafet xamal ko loolu mu kii lañ la jox ñu boole ko yóbbu ki daara ji muy benn hmm. ñaari ba tamit mooy ñun ñu fa jóge woon te bis boobu tamit bis la boo xamante ne bi ni dañuy maanaam di tajdidil bayaa di wajjilaay su yeesalaa suñu jaayante ak yàlla ngir liggéeyal téere bi nga xam ne bi ni mooy alxuraan karim xam ne bi nii liñ ci war mooy xam ko xam lu ko liñ ci war mooy dund ko liñ ci war mooy tamit def ci suñu alal lépp dafa yeesalaat yeesalaat yeesalaat suñu suñu jaayante euh, dégg nga euh, bayan bi tamit mooy euh, mooy dama xoon lekk fexee itam jullit yi ñu xamal leen daara ji maanaam ko ko koo xam ne xam nga ko hmm. xamuñu daaree kokki maanaam démb rek ni ñuy waxtaan am na ko ni man ko ma jox ren bu déwénee dama naan la dama bëgg ren ñu ànd ba ci daara ji nga dem ba gisal sa liggéey hmm. maanaam koo fa yóbbu tey mu jox la fukki dërëm bu déwénee boo ko andee téeméer lay jox ndax dana gis liggéey bu liggéey bu liggéey bu rëy boo xamante ne nekk boo xamante ne moo fa nekk kon daal sabab yi sabab yi daal mooy dajale ay ndimbal mm-hmm. ak xamle daara ji mm-hmm. ak tamit ñun tamit ñu gën a ñu gën a xamantewaat gën a euh, jàppawaat gën a gaat mooy mooy mooy mooy mooy sabab yi Cheikh Ahmed Makhtar bu ma la déggee mooy mel na ni feeñal nga ne euh, daaray Koki ba saa si ñuy def émission bi 4181 euh, élèves ña nga fay jàng ay mm. daa ay ndonga daara Euh, quatre mille cent quatre-vingt-un yooyu dañoo war a lekk war a naan war a solu war a am fu ñu tëdd courant di leen niital loolu yëpp mu aju ci dox ak ahlu kokki mais waxuñ kenn na ko nangam ngay joxe mm-hmm. loolu mu doon lu doy waara kon mel na ni euh, waa kokki daaray kokki ñoom dundeewuñ alxuraan mais dañuy dundal alxuraan mm-hmm. parfois nga gis ben way bu bo xamne day wane damay dundal alcorane mais da koy dundé hmm. ñoñu bokkuñ ci parce que ku ka xam na ne euh, ak lu xel fatu fatu fatu fatu warna xamne 4181 du tiaxan ay nit ñu nekk ci place wara lek wara nan febar di len fu fekk wara a war courant lolu ko ñemee engagé rek te ne laajuma ken dara amna lu amna lu la yàlla defal bi ko sa saraxa <laughs> feeñal nga ne euh, loolu nga xam ne moo am moom góor gi nga xam ne moo ko farman Cheikh Ahmed Saqir daana wax ne innal amra kulluhu lillahi lépp yàlla la mais du lépp kenn bu mel ba mu ko seddee yàlla rek la ko yàlla séddoo wallaay wallaay waaw ah, mbir nag ñun léeg-léeg ñu seddee ko yàlla te fekk yàlla séddoo ko dañ ko ko séddee dañ ko ko tuddee rek mais boo ko séddee yàlla rek mu séddoo ko nga feeñal ne mudir bi fi nekk actuel muy Cheikh Makhtar wane nga ne fa fa góor gi tegoon tànkam la teg amul lu mu ci lu mu ci def loo xam ne lu dul luñ ko jox ca daara jële jëm loolu lay dundee moom ci la nekk moom it nga ne bés bi buñ ko buñ ko déggee taj dul bay ala maanaam ña fa doon jàngee ñooy salaat seen jaayante ci waneen liggéey bi dafa am lu leen ci war te du wàcc feeg ñu ngi dund danañ ko jéem a taxawee feeñal ne dafa am kenn kuy jullit te mbaax ñor la am na loola war ci loolu amalil maaruf war mi fil baxri defal lu baax sànni ci géej sa yoon bu nekk ci ko ko jël feeñal nga ne mu mel ni léegi pour xamal ni ñu daara jooju mais am na lu ma bëggoon ku ma leeralal ci bay bi bés bi ñu koy def daaray Koki nga xam ne defe naa dimanche bi di ñëw la. waaw da ngay ne tànn rek ne euh, le 29 ci mois de juillet lay doon lu tax mu doon le 29 boobu dafa am événement bu ci xamoon wala lu mu demee lu tax rek ngeen tànn bés boobu. waaw waaw xanaa xanaa mën naa mbokki ñoo ci. waaye sëñ bi sëñ bi wax naan loolu. Hmm. xam nga léegi euh, euh, ñi gën a daaray Koki mbootaay gi. Hmm. ñoom ñooy def bés boobu seet sëriñ bi beesalaat seen kii ñoom nag ñi ëpp ci ñoom nag nañ ñëw ci njaasaat ñi ëpp ci ñoom ay professeurs nañu jàngale ñi ci ëpp ñi ñi ñi ngi ci lycée ñi ngi ci université ñi ngi ci seer ñi ngi jigéen bu ah, bi tamit day dajeeg vacances ki di des tamit am na ay doom yoo xam ne ñu ngi ci biti ñii ñu ngi ñi ngi Arabie Saoudite ñii ñu ngi Liban ñii ñu ngi Koweït ngi di jàng bi day fekk ñëw vacances bu ko ñooñu euh, moment bi ci lañ gën a am temps gën a gën a am jot ma war a mën daje ñu ko defee ci biir année scolaire bi rek ñu ko defoon tey de novembre wala ba octobre wala kii décembre na am gàllankoor bu am a am temps loolu leer na mel na ni intihaas fursatu antla to say fii moom lay doon lay tombee tey ma ñëw ci Cheikh Cheikh euh, mel na ni euh, laaj bi ñu doon laaj léegi Cheikh Ahmed Makhtar mm-hmm. euh, al asbab boo dawaa fee maanaam sabab yi ak nga xam ne moo leen motivé mm-hmm. wala moo motivé mboolem ku bokk ci bés bi mm-hmm. bañ jagleel bés ne dañ koy tuddee yow mu taddaamul li kooki lu ko Euh, jërëjëf euh, Serigne Cheikh euh, xam nga sëñ Ahmad Saxiir Lo <laughs> waaw laalaa tuuti rek ci bañ koy yebal mu dem ubbi daara ji dafa am ay nattu yu ko fa daloon hmm. loola ci yu indi sabab yi ci la bokk nattu yi hmm. mooy turandoom bi daf koo waxoon ba mu koy yebal wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka hmm. wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin aaya boobu la ko yebee woon mu dem foog ànd ak benn jarbaatam bu ñuy wax Baraama Géy moom cundum la fa yóbbaale woon ba mu demee ku eh, ñu wax alaaji ma demba ma demba Jóob yebal ko fa moom moo ko may benn pàkk su ndaw fi daara ji nekkoon ay jamono léegi nag gën naa yaatu macha allah tabarakallah ba mu demee nekk fa tuuti jarbaat ba faatu faatu waaw maanaam ñëw ci dëkk boo xam ne xamoo fi kenn mm. nga ñëw ne da nga fiy jàngal alxuraan salaamaaleykum waaleykum salaam ki fi àndaloon wuyu ji boromam nga jàppoon mu jàppale la. waaw jarbaat du euh, gaañu. Hmm. waaye dëgëram. ak delluwaat ci alquran wa man wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasuli summa yudrikuhu l mawtu faqad waqaa ajruhu ala llah mu ne aaya bi dafa dellusiwaat ci moom hmm. mu gën a dëgëraat toog ñu toogaat ab diir daara ji commencé am ay nit hmm. maanaam comme jamono yi déeg yi muy am xam nga àll bi buy taw mu am déeg ndekete déeg gi xale yi dañ yaakaaroon ne déeg la jamono yooya ñu kii di xuur la ñu dugg ci daanaka majorité daara ji yëpp lab ca ñu ngi leen denc foofu ci eh, gannaaw daara ji donc kon yëf yi gën a diisaat lakk gi sëñ bi tudd sànq ñëw amaat ñu dem bay taxawal julli muy lakk na nit ñi nar a fa ñu leen toog leen dem leen julli ba dem leen julli daara ji lakk ba jeex tàkk mu wax la mu waxoon ne la boobu la gëm ne loola dana am mhm. danaan toog bu toogee ba ci yàgg dongo yi di jaar nii ñii di jaar nii mu ne eh, man de bu ma amoon ko benn ku mu miireel rek daara ji mu wër rek ba mu nekk benn bunt nga xam ne fu dong di génnee rek mu mën kaa séen teguñ ci lu yàgg ku ñuy wax ma xari géey bu cees mhm. daal di wër Sénégal daara yu bare bare bare wër fa. Mhm. xool ne dafa bëgg a def ci yoonu yàlla parce que mhm. bu mu laajee eh, ay kilifaam. dañ ko buggoon tabax jàkk mu ne ko jàkk kat bala nga ko tabax dangay fexe defaral ñi nga xam ne ñooy taxawal jàkk ay imam bal nga tabax jak da ngay defar ay imam ba nopi mhm. te imam ya ca dara yi la ñuy génnee waaw mhm. mu dem ba mu ñëwee nek fa ñetti fan ba mu assalamu alaykum ñu fay ko mu laaj ané sëñ bi ñu ni ko mu ngi ni tok mu ni ki yor dara ji la wax ñu ni ko ki tok moy dara mu ne xaar ah man da mel limay koy bëgg gis mu ñoo tok mu ne ko man de dama fay bëggoon ñoo nek fi ñetti fan waxtaan ak mom sëñ bi bayiko mu wër di wëral boppam di xoolal boppam ba am fa lu xaw a ñetti fan yu mat sëkk mu ne man li ma doon seet gis naa ko ci jamono yooyu mu yëkkati lu ëpp deux cent million jamono yooyu tabaxee ko daara ji tey fondement bi nga xam ne moom mooy kii bi wër daara ji miire ko tabax ci ay néeg mu nekk ay dëkkuwaay kon daara ji foofu la commencé di jóg ndànk-ndànk ba ñu demee nag xam nga am nañu dëkkuwaay am nañ lépp mhm. waaye dund gaak faju gaak yépp daf ko wékk ci suñu borom li sëñ bi waxoon sàkk tawakkul alallah mhm. ba ñu demee ba 1980 ay mag ñu baax ñoo xam ne maanaam seeni njaboot dañoo nekkoon ci daara ji ñenn ñi jaar ci daara ji ñu def benn délégation ñëw ba ci sëñ bi ñu ne ko ah, sëñ bi ñun de dañoo buggoon dajale benn bis boo xam ne dañ ci woote bis boo xam ne dañ ciy dajale ay ndimbal pour yóbbul ko daara ko indil ko daara ji mu ne ah man de lu ngeen ciy def te jiitalu leen ci sëriñ Sam Mbaye ak alaaji Jili mbay bu ngeen leen jiitalee rek lu ngeen def baax na ndax li tax sëñ Sam Mbaye rahmatullah alayhi bokk na ci ñu njëkk tari alquran ci daara ci mhm. mook alaaji Jili Mbaye mhm. moo tax te tamit seeni seen waajur moom moo ko yabaloon ca daara ji mhm. mu leen lu ngeen di def ba jiital ca ñaar ñooña rek lu ngeen def baax na foofa la journée de solidarité bi commencé muy 1980 1980 1980. ñoom alaaji aatu xulle ñoom alaaji madabas Diop yàlla na yàlla yërëm ñoom ñëpp. nekk mag ñoo xam ne ñii ñu ngi féetee Kaolack ñi nekk cees ak ñu baree bare ñi ay commerçant lañ ñii ay sëriñu daara la ñu baree bare dajale. commencé at mu jot ñu dajale ndimbal yóbbu ca daara ja niñ ko daan defee sax système bu njëkk bi mooy dañ daan yor ay lettre yóbbu ci marché bi yalwaan buñ dajale yóbbu ay yërig yëpp yóbbu ko ca daara ja bu ko defee du fa waaye nag dañ ciy dundaale ba keroog bu ko yàlla di tudd ba ak leneen di di ñëwaat hmm. loola moo sosoon journée solidarité bi am na ci ñoo xam ne nag ñi ngi ko sosoon ba tey ñi ngi fi ku mel ne benn seexloo euh, kii muy mut antaloo hmm. tey ak oustaz Moustapha Wayel mi nekk secrétaire général tey hmm. ñoo ñëpp taxawaloon loola di ci woote nga xam ne nag daara ji li ko doon dundal dippi booba du ci ndaje mii rek waaye ndaje mi dañ ciy daje solidarité waaye oustaz euh, Ahmad Mokhtar Diop mi day jàngale professeur la waaye lu ko yàlla dénk ci wërsëg danaan bala maa yóbbu ci sama njaboot. lii daara jee ko moom. oustaz Abu Bakrin sax alaaj sax wax loola man ak man wax loola te kenn sa suñu ko nag. kenn sa suñu ko ku ci nekk da ngay taxaw ne man bala maa dem ci oustaz euh, Cheikh wala oustaz keneen naan ko jox ma ndimbal ma yóbbu daara ja man li ma yàlla di dénk naa ci génnee. moo tax moom la tuddal nii ne la ñu ci bare bare ay universitaire lañ ñi ay kii lañ am maanaam ci wàllu xukuma bi lañ nekk maanaam euh, gouvernement bi dañuy jàpp ci daara ci dañ am ñoo xam nag daañu leen ci tudd ku mel ne professeur Iba Der Thiam li tax ma koy tudd moom depuis 1981 ba muy nekk ministère ministre de l'éducation ba tey fii may wax ak yow ci émission bi loxoom jugul ci daara ji mm-hmm. maanaam weer bu dee am na lu mu war loolu daaray kont mm-hmm. nga xam ne même bu tardé weer ñaari weer daf koy dajale mel na bor bu mu fay kon ñu mel noonu dana laaj ñu tudd leen maanaam ci jëf ju baax ñi ngi appuyer daara ji courant bi mu lay wax faju beeg ndox bi li ñu am ci ndaje mi ca lañ koy wéyale waaye dadul mat moo tax léeg-léeg comme ñun ñi da ci am ñoo xam ne dañuy def ay groupe nee na ah section sàngam section sàngam ñenn ñi ah ñun kat tabaron nañ maanaam dañuy volontaire daara ji lu jëm ci courant bi dinañ ci def lu luñ man bu weer dee ñu wër dajalaatu lañ am ñu xool sëñ ba bu fa dara nekkee ñu mottali ko fayee ko courant bi noonu laal la leneen ñii ne ah lu jëm ci wàllu garab ñun ñii de danañ dajale weer bu dee ñu yóbbu lu ñëw sëñ bu jëndee garab la ca des noonu daal la la la la liggéey bi di continuer kon journée de solidarité bi daal li ni moo ko moo ko waral eh, jërëjëf kon mel na nii bu ñu la déggee eh, nit ku ne na nga toll ci yàlla ni la say nattu di toll <laughs> loolu mooy firndeel ne bi mu gàddaayee di dem foofa ca daara ja wàcc ci àll boo xam ne wàcc wàcc fa indi woo benn yóbbal ànd ak sa jarbaat bu mu doon sa taalibe jàpp ne boo jàppee ci koñ bi mu jàpp ci koñ bi yàlla war na la maa la ko gën a soxla jël ko mu nangu la yàlla dogal ñu teg maa bay na asiyatin wa duwaha ay quelque taalibe lap ci ndox mu nangu ne loolu yàlla dogal looloo neex suñu borom parce que lu neex yàlla na neex ab jaam bu fekkee sa gëm yàlla wér na loolu mooy firnde bi ñuy wax naa nit ku ne na nga toll ci sa borom na la say natt du toll mm. loolu moo firndewu mm. nga feeñal ne eh, yow mu tadaamun bi depuis 1980 la la taxaw ci délégation yu ko seet si woon mm. wane ne ko dañoo bëgg a tàbbal suñu loxo ci daara ji mu wanoon ne d'accord lu ko neex la waaye eh, buñ fàtte ne dafa am ñoo xam ne ñooy xaar ñooy pied assass yi ñooy maanaam ñooy daf dofan bi njëkk a génn ci daara ji ku mel ni Serigne Sam Mbaye ku mel ni Alaaji Jili Bay na ñooñu dañ ci am cërëb xaas buñ ca d'accord rek am muskila te loolu wenn na ne nga ne moo tax mu continuer depuis booba tudd nga ci ku mel ni euh, Moustapha Wayel muy ku ñu xam ñoo ko koy nuyu feeñal nga ne kon loolu mooy luñ mel buñ la déggee mooy delloo njukkal la nit ki su fekkee dina la teraanga soo demee ba mën dara war nga ko def seexul islam alaaji Ibrahima Niass danay wax ne fala ujaasi al ihsan bi nisyan te du ma fayee jëf ju baax fàtte te loolu mooy gor xam nga gor doo fayee jëf ju baax fàtte loolu moom laa déggee ci sa wax ji léegi nga dem di jàngale ba jàngee daaray kokki jógee ko fa jaaraat feneen ba xëy ñu nommé la nga nekk proviseur nga jàpp ne kokki courant fa ndoxang fa lekkan fa yow am nga loo lekk sa kër nga ne bu ma fayee ko sama salaire nangam ji moom kokkee ko moom loolu ñu ko mën bëriwul. Mhm. te mel na ni seen bés bii ngeen organisé. di ko def euh, loolu bunta ubbil nit ñi bunta mbaax la it nag. Mhm. génn ni ñi yoon wax xam ne mën na caa bénéficié woo loolu la ba tey. Mhm. Euh, bëri na yoon yu bëri yoo xam ne mi ngi tëju doon bunti baax ay nit a ko ubbiwul mel na ni bii ngeen ubbi ci loolu la bokk. nga feeñal ci ku mel ni professeur Iba Der Thiam Euh, mu doon koo xam ne kuñ xam la ci réew mi ci àddina bi mu bippi mu nekk ci gouvernement ba mu ci génnee ba léegi lam war loolu ba mu ngi koy def bés kon mel na ni lu mel noonu ay bunt yu bari la kon loolu mooy xel la bi tey euh, oustaz Alaaji <coughs> ma ñëw ci yow ba tey ñu ñëw rek ci asbaab yi nga xam ne moo tax euh, bés bi ñu jagleel ko kooki macha allah jërëjëf Cheikh Tidiane bi tey jërëjëf mbokk yi jiitu itam ci leeral yi ñu leeral Euh, Cheikh euh, sabab bi nga xam ne moo sabab nit ñu daje ci bis bi ngir dimbalante day dellu ci euh, dundal njabootuk sunu borom bi tabaraka wa taala jàppale njabootuk sunu borom bi tabaraka wa taala ndax ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatu mille cent quatre-vingt-un ñoo fa nekk ci ay ci ay tànk yoo xam ne ngay jàng alxuraan mhm. dañoo war a lekk dañoo war a naan dañoo war a faju loolu daar ji moo leen ko yanul mhm. moo yanu seen lekk moo yenu seenu naan moo yenu seenu paj moo yenu seenu dëkkuwaay te ba daara ji sa soso 1939 ba léegi sëriñ bi sa laaj kenn ñaari dërëm du kenn ku fa indi sa doom mu laaj la dara ci moom loo def yaa ko def ci sa coobare ngir xam ne da def ngir yàlla waaye moom ma ngi ca ne lañ jox santoon mooy demal jàngale ci ngir yàlla te muy laaj kenn dara hmm. kon njaboot googu li li leen war mooy dañu war a lekk war a naan war a dund a war a jàng itam doom ci ak dëggoom ak ci dogom da doon wax daara ñàkk jàng dong moo koy tas waaye ñàkk lekk du tas daara mm-hmm. ñàkk jàng nag fu nekkul moom jàng nekku fa mm-hmm. euh, nett lañ ma ne ma sëñ bi mas naa am benn bis xale yi soxla ndox wër ndox dëkk bi ak ni mu ñàkkee woon ndox loolu ñu di ci sant Cheikh Aliou Souané mm-hmm. taxawaay bu rafet boo xam ne taxawaay na ko ñëw gasal daara ji benn forage boo xam ne ba léegi ñàkkatuñ ndox ci googu wàll tout tànk yi wër ndox wër wër wër amuñ ñu dellu siwaat dikk nag sëñ bi ndox amuñ mun a dem leen jàngi eh, dem leen jàngi jooja mu mel ni am na ñu xaw a mën dem leen jàngi yàlla ñàkkut fay bay defal ku ko defalu dara bàyyi ku koy defal dara taw moo leen may ndox ñu am luñ naan am luñ sangoo am luñ jëfandikoo yépp kon mooy tawakkul alallahi boobu day am mm-hmm. sababu ñu daje nag mooy delloo mbattu ca ndaala li olof yi di delloo mbattu ca ndaala ñun ba ñuy jàng laaju ñu dara dañu doon jox ñuy dund dañu jox ñuy lekk dañu jox ñuy naan suñ feebaree ñu faj na ku ci nekk nag kon war naa am loo yëkkati delloowaat ca daara ja ndax daara moom ñett ko ki kiy jàngale ak kiy jàng ak ki koy ki ki ki ki waajuru indi waajuru indi ginnaaw nag kenn war lu ko lum lekk kenn war lu ko naan dongo yi li ñuy dem toolu kës néew bariwul. Mhm. ndax da doon wax ne su liggéey bi naree gàllankoor njàng mi nañ bàyyi liggéey bi te dem njàng. moom naka jekk loolu ay waxam. su liggéey bi naree gàllankoor njàng mi nañ bàyyi liggéey bi te dem jàngi. kon euh, tawakkul ala allah booba nag ak ñu ne ñu war a jëlaat sunu sunu sunu sunu sunu su delloowaat te ndax daara mënut a ñàkk yalwaan. Mhm. daara moom force mu yalwaan. Mhm. ndax amul ko ko jàppale. ndax daf ne cundug moom kese bëgg dem te war naa lekk war naa naan war naa def dara te amul benn bit sa buy jóge fenn laaj nga ci ginnaaw mm-hmm. ndax dañu am mm-hmm. jël di def ngir yàlla mm-hmm. ginnaaw nag force am ko yelwaane ñun ñi fi génne woon nañuy teete sunuy rakk ya fa nekk di yelwaane di leen indi lii mooy sababu ndaje bi nañ dem yelwaane indil leen ndax bu ndaje bi masaana am ñu dafa daje di fi indi te bañ fay nekk mag ñi di ñëw indi seen euh, dund yooyu ñu jënd ab dund indi ñu dugal ci magasin bañ xam ne bu ñu demee dong yëg ne ab dund ngi fi mm-hmm. xel day gën a dal mm-hmm. ndax da ngay yëg la ngay lekk nga ne ñuy sant ci lim bi fi nekk waa Koki waa dëkk bi mm-hmm. ndax dëkk bi li muy tuuti tuuti tuuti tuuti kër bu ci ne am na ku muy jël ci dong yi di ko di ko jox muy lekk di ko toppatoo ci waa Koki ndax nombre bii fi nekk mm. du kenn koo xam ne ni yaa leen gàddul ab dund du kenn ku leen gàddul am paj du kenn ku leen gàddul lenn loo xam ne ni ba ci courant baak yépp lu may ñi fi génn kon sababu ndaje mooy sababu tàllal sunuy loxo fu jullit ñëw bokk ci man dal la du yaqridu llaha qardan xasana loolu mooy sabab bi bu ko defee nag loola ngir dimbalee ko tout temps yi ngir ñu mën a toog jàng alquran mën a toog def li leen war ba buñ jógee nekk koo xam ne da nga taxaw ci réew mi taxawaay bala ca war hmm. ndax Seex Ahmadu Saxiir Lo jàngale wutoon ngir defar kuy dem ci jàkka ji waaye jàngal na defar ba kuy defar kuy dem ci armée ba muy mu yar la ci diina nga nekk ci armée ba kuy nekk ci bépp bépp secteur boo man di nekk mu yar la ci diina ba boo demee foofa lislaam nekk fa kon loolu moo doon sabab bi jërëjëf euh, alaaji buñ la déggee mooy euh, ndongo yu mag yi ñooy yalwaanal ndongo yu ndaw yi ndongo ya nekk ko ki amuñ joti yalwaan seeni seen seen tànkit mayul leen ko ñu organiser journée buñ tuddee yow mu tëddaamun ndongo yu mag yooyu nga xam ne fi ne génnee nañ fa démb ak barki démb nekk ci yeneen occupation ñoom ñooy yalwaan pour yóbbu yalwaan moomu la ñu dem su ko defee xale yi seen xel mën a dal mën a dajit ne ab dundang fi ñu mën a gën a continuer jàng nga wax wax ju am solo ahlul quran um ahlullahi wa xaasatuhu mu mel ni ñooñ alquran la ñuy protéger nga wane ne Cheikh daana wax ne e, daara moom li koy tëj wala li koy ferme li koy ña li koy arrêté mooy ñàkk a jàng waaye ñàkk a lekk du ko arrêté. tax yàpp naa ne ku xam daara ni muy doxee da nga xam ne li taalibe bi ñam parfois ba ru am taxaw ma mën cee jàng. bu fekkoon ne xiif mooy tëj daara ni kon daara yëpp tëj nañ. Mm-hmm. te gis nga ne taalibe bu mu ci mënti ki doon. Mm-hmm. da ngay am lu soroo taxawee rek nga dem jàng. Mm-hmm. kon xiif mënta yàqal nit jàng mm-hmm. mel ni jàngkat bu ragal xiif sax doo am xam-xam mm-hmm. faw nga faw nga xiif mm-hmm. tumuranke su ko defee nga door a mën a yegg fa nga jëm tey léegi kon xam naa euh, li ñu def mooy dañu ñëw ci euh, damay sotti tomb bi xëy na jéem koo mujjee parce que mel na ni kokki am na ay indiasaat ay réalisateur loo xam ne ñoom ci seen daara ji réalisé nañ ko ña jot boo jàppoon ni réalisé nañ ko bëggoon nañ xam réalisé loolu nga xam ne waar kokki def na koy indiasaat moom lu ñu réalisé. Mhm. Euh, ngeen tuddal ñu ci lenn ak nu mu amee. Mhm. bi ci des mooy mel na ni li ma déggagum ci wax ji yëpp mel ni loxo gouvernement tàbbiwut ci liggéey bi. Mhm. ndax gouvernement da ngeen leen contacté wut waa Koki laay wax ak ak euh, ñi sëq lépp. dañ leen contacté wut xamal leen na leen daara ji soxal na ndimbal. ñu dugal ci seen loxo. wala euh, da ngeen doyloo seen bopp rek quoi. waaw bisimilah rahmaani rahim. xam naa bu ñu dee wax injaaza bi ci njëkk. Hmm. mooy tabax ay ay doomu aadama yoo xamante ne bi nii kenn ku ne poids lourd nga ci xam-xam. Hmm. maanaam daara joo xamante ne bi nii day na rek injaaz génne ku mel ne sëñ Sambay. Hmm. sëñ Sambay fa la génne. da nga dégg sëñ Madick Seck borom yàlla nee na fa la génne. sëñ Saliou Mbacké Xadim Awa ba fa la génne. Ahmad Mubarak Lo borom liggéey bu mag boobu ci Louga mën naa la fa la génne. Tafsir Mohamed Diouf diplomate boobu. ambassadeur mi ngi mi ngi mi ngi. Eh, retraité lii Bargny waaw Bargny. Hmm. foofu kii foofu la foofu la génn. Hmm. professeurs yi nga xam ne ñëpp ay professeurs lañu dañuy jàngale ñii ngi ci lycée bi ñii ngi foofu foofu lañu génne. Hmm. waaye bu ñu xoolee tamit ci ci ci ci ci sur le plan économique ci réew mi day gis ñoo xam ne nii li ñuy liggéey ci kii daara ko sëriñ boobu CCBM daal da daal ko ki la génne. Alaaji As Ndaw daal ko ki la génne sëñ Abdou Aziz Sylla daal ko ki la génne ñoo ñëpp xam ne secteur boo dem. ci ci ci ci développement yi da nga fekk doomi si ma saxir yi ñu nekk fa di liggéey liggéey bu rëy bi ci seen mooy même fii ci dëkk Dakar sax da ngay dégg publicité daaraam daara naa daanaka de kokki lañ génne lu tax parce que sëñ ma saxir loo dafa amoon benn philosophie mooy xam nga fi mu toll ni euh, boo ne quatre mille cent quatre-vingt-un élèves ñoom ñoo fenn kan moo leen di jàngal moom moom euh, ruuxu tadaamun yow mu tadaamun gi ruuxu tadaamun bi mu def ci diggante donge yi maanaam maanaam xam nga bu ne buñ ne doomu aadama jëmm ji tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ mhm. lu tax mu mën a fank seen am ruux gi nekk seen biir ruux gi moo tax bu ruux gi génnee du yëngutu mhm. mais tamit ñun ñeent bu ñu dajee mbooloo lañu ab wan war naa am ruux goo xam ne moo tax ñu dund mhm. ruux googu nag mooy kenn ko yëg ne responsable nga kii si ma saxet booy booy egg daara ja rek di yëg ni yow mi sa mbokum dong mi xam yaa ko mag bu tilimee am nga pas responsabilité comme boo mokkale karim di ngay gëm moy sa mbok mi ba tayul bind tay ñaka tari bind gi am nga responsabilité wax da nga taxaw lo man pour mu tari bind di ngay dem ma xam ne sax ki ngeen bu ñu mokk karim seen ñàkkaa mokal ba yaman xiyam yow lañ koy laaj moo tax dama tàggat donga yi seen bir ñuy dimbalante ngir yalla lol nak ci ca ba la ko jëlee sallallahu alaihi wa sallam ci makka ci mu def mën a war ja ku fa nekk ab donga nga di taalibe xalaqaat yi maanaam ab donga nga parce que alxuraan nga wàcc ngay jël bind bu bees taalibe nga loo jël loo jël da ngay jàngale bu kenn mosaan ñëw tuub boo baree boo benn saxaaba ne la boole a la ak moom li nga xam ci alxuraan da ko xamal maanaam pour xam muhammad gum doon da koo dund lépp loolu da moo jur nag dongee tamit bëggante seen biir kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne moo tax tey tamit boo dee xool daara yi nekk fii Sénégal. di di génne ay ay ay bopp yu baax a baax ren yu ci bëree bëri bëri daara ko kii la génne. ba ñu ba ñu daara Cheikh bii daara ji mag la yore Mahamadou Bay la sëñ Amar Diop kenn ku ne nga daara ju réer Cheikh Mouhamed ñu ngi fay ci buun raison boo dem nag daa fekk daara yoo xamante ne bi nii nit ñi ñu ngi fa jëm doomi sëñ ma saxeer moo moo moo moo moo ko samp daan wax naan man de li ma gënal li ma gënal. ku jàng ba noppi li ma gënal nag foo dem nag pour góor góorgóorlu baax na waaye li ma gënal mooy dellu fi ma jóge woon samp ab taal alxuraan di jàngale parce que bëgg leer yi gëndaloo ndax bu leer yi gëndaloo rek bon gi ngeen baal ma caay caay gi bon léegi jóge seytaan da da da daa dafa jóge yi gën a def ci ci ci kii bi mooy génn nit ñoo xamante ne bi nii fa ñu nekk dañu fay taxaw doon ambassadeur yonent bi sallallahu alayhi wasallam di defar di jubbanti di gindi di di di di di di di technique di technique yi ci yoon loolu daal ci gàttal mooy li ci gën jërëjëf euh, Ahmed Mokhtar buñ la déggee euh, li gën ci lu nit di waaye réaliser moom la réaliser mooy nitu qualité. nitu qualité parce que àddina bi yëpp li ko lëjal tey mooy nit ñoo xam ne niti niti caaxaan lay. Mhm. mais su fekkee da nga former nit koo xam ne am na lu muy rus am lu muy jomb am lu muy dabu kooku duñ ko boole ci yi des. nga feeñal tudd ci ay borom xam-xam yoo xam ne histoire dootu leen fàtte ba péccam yàlla di taxaw. nga tudd ci Serigne Sam Mbaye nga xam ne Serigne sambay amul ku koy fàtte ci réew mi. Eh, amul ku mën a waxit ne jëriñu ma ci xam-xamam. wallaahi ndax ku ne dégg na ko ci ay kasetam boo ko gisul tamit muy wax wax ju set ju fasaa nga tudd ci ay professeurs yu bëri. tudd ci koo xam ne dama ko xam bu baax moom mooy tafsir Mouhamed Diouf boobu Mouhamed Diouf Bargny. ma seq ak moom ay xalaxaat yu bari ci xam-xam bu sell. bu àndak ak fit bu ànd ak ixlaas <laughs> lim xam ñemee na ko waxee fu nekk mm-hmm. te amul ci parparloo amul ci dara loolu mooy xam-xam borom xam-xam boo xam ne insaan muxlis la mm-hmm. li ma xam ci moom rek laay wax na mm-hmm. parce que dangay mi dafa naqadee waxee boo waxee tudd benn waay sax ñu ne lu tax nga takkal ko nga ah, at mais man duma wax ci nit lu ma xamul ci moom te am naa ci sañ-sañ yi ndax seq naa moom ay jotaay yu bare bëree bëri loolu laa xam ci moom ba saa si may def émission bi ba tax na kon soo ma tuddalee kuñ mel loolu sañ naa ko seede kon mel na ni fee na ne jëmbat na ci biir taalibe yi ru u taxawul ñu dimbalante nga wax ne nit ki nekk ci kokki di jàng parfois dana gis mbokkam moom mu pare mokkal gis mbokkam mu mokkalagul mais dafay jàpp ni kii suñ ma këlut man am naa ci pas responsabilité mm-hmm. ah, nga loolu yombul mm-hmm. ñu bari tey dañuy jàpp ne man li may dabu su ma ko jotee sama yoon nekku ci ki ma àndatoon naa dem sama yoon mm-hmm. mu mel ni jëmbat na ci róowu taxawun goog seen biir al iqa nga ne loolu mi ngi ko jëlee ci yonent bi ba mu ñëwee Madinatul Nawara génération bi mu njëkk a formé ñu génne ci école muy saxaaba yi ba nam leen nam leen takkalee woon mbokkale leen takkale leen ay ndey loolu mën leen moo ñëw ci daaray kokki feeñal nga ci daana wax ne bo kenn bu mu leneen mais li ko gënal sañ na wax li ko gënal. mooy ku pare nga samp daara. joxañ nga ci ay daara yu bari ñu xam leen. ñu mel ni ah, ñoom Baye laa Ñang xam nañ leen ñu mel ni ah, Serigne Baara Brodé eh, Bun muy suñu xarit. ak ñeneen ak ñeneen ak Serigne Cheikh ah, Alaaji Sow mi ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk mel na ni wax nga ne danaa niital dara lu wane ne kokki laa jógee ko lu wane ne man mii kat. damaa war a dellu njukkal ndax dañ maa lebaloon bor bi mu bëgg a fay dara ci bor bi donte mënoo fay lépp sax mais jaar nga ci yoon bi. Euh, kon jombut euh, dana am ñoo xam ne ñu ngi seetaan. am luñ bëgg yokk ci waxtaan yi dañu am luñ bëgg a laaj. koo ci xam ne bëgg naa yokk wala mu bëgg laaj mën naa jokkoo ak ñun ci 88 628 11 22. Cheikh ma ñëw ci yow. Euh, ñu del si ba tey ci. ahamul ahamul injaasaat yi gën a am solo ci ay réalisateur yoo xam ne réalisé nañ ko ci daara ji. jërëjëf sëñ Cheikh. injaasaat moom xam naa buñ koy wax maanaam réalisation ci daaray Kokki. Hmm. Euh, dara féetewu ci kaw li sëñ bi tudd maanaam defar ay doomu aadama yu mat sëkk sëkk sëkk te sell maanaam bi maanaa doomu aadama li ñuy wax koo xam ne maanaam day dundal kaw suuf euh, tudd na ci ñu bari waaye bala maa dugg foofu damay kii ci euh, ambassadeur bi nga tudd Mouhamed Diouf doomu Tafsir juuf mm-hmm. moom waajuram ak sëñ mat sax yi dañoo jàngandoo moom Tafsir juuf bu Bargny mm-hmm. ba ñu jàngandoo mu naw jikkoy sëñ mat sa sëñ ahmad saxir loo mënu ko yow de bu soobee yàlla bu yàlla mayee taw bu góor danaa ko jox nga jàngal ko alxuraan mu mu mu feddali maanaam yéenam ak niséram moo tax ba tey ñu ngi koy fàttali ñu ni moom ba ko waaye juróom di indi ca daara ja ca fenêtre terrain bi rek lañ ko lañ ko jël rek joxe ko noonu continue <laughs> nga xam ne waaw wàccul sax waaye dafa ñëw ba toll ak terrain bi rek sëñ ba saxir taw ñu jël ko ca ca fenêtre bi moo tax moom danaan xamul bàyyam waaye sëñ mat sax yéen mooy waajuram moom Mouhamed Diouf bi ngay parenthèse parenthèse moom sax day wax naan hmm. joxoon nañu ma daara ñaar fukki at mais doo ko judd <laughs> kon kii am solo yokk ci li nga doon kon Indiazat yi wax dëgg yàlla réalisation yu ama am solo la hmm. ay universitaire am na ci yu bare bare hmm. maanaam jot na rek ci ñu mu tudd ñu tudd ci ku mel ne docteur Djim Dramé nga xam ne mu nekk IFAN tey ji ci islamologie Euh, opérateur économique yu mag a mag ci réew mi suñ tuddee Serigne Boub daanaka Abdou Aziz Sy la ñu bëri alaaji as ndaw mm-hmm. yaakaar naa ak ñu bare bare bare ci foo mën a dem mm-hmm. tey ji daanaka boo demee marché Sandaga da ngay jàpp ne commerçant yëpp daa rek kokki lañ jógee rek ñëw sanc marché bi mm-hmm. kon yooyu yëpp ay kii yu am solo ci wàllu économique euh, bu fekkee ci wàllu al euh, injazat fi loolu mabaani alhamdulilahi rabbil alamin tey ji daara ji waxoon nañ ko lakk na fi nekk ay sàkket waxoon nañ alaaji euh, Maxari Guèye hmm. mi tabaxoon daara ji tey yàlla def na wax dëgg yàlla tabax nañ fa ay dëkkuwaay yu mucc ayib euh, donte doyagul ndax lim bi moom xam naa ñu leen dëkkal moom waaw 4181 hmm. euh, ci ñaari at ci ginnaaw am na complexe scolaire bu ñu fa tabax bu mag a mag boo xam ne ki ko tabax doomu daara ji la tudd nañ ko alaaji Abdou Aziz la léegi hmm. loo xam ne ëpp na coût un milliard nga def ko tabarnon école ba mujj faa dem ba ñu ngi xalaat sax def ay mashron maanaam enseignement supérieur incha allah ci fil mustaqbal donc kon yooyu yëpp ay injaazaat yu am solo la ñoo xam ne bu ñu daan jàng maanaam ñi ñu jiitu ca daara ja bu ñuy nettali dañ noon buñ doon buñ daan dem di def certificat Louga lañ ko daan defee ji buñ leen daan tooñ dañ naan leen waa école boof ñëw nañ école boofu mooy lan mooy ci suuf la toog toog di jàng tey demee ba am maanaam complexe boo xam ne am na plus de soixante euh, euh, soixante classes salle de classe ak ay salle de conférence ak bibliothèque yëpp euh, sant waaw mu ngi am am aide yu muy def njiitu réew mi ci boppam mu ngi jàpp ci daara ji wax dëgg mm-hmm. yàlla mm-hmm. soxnaam mi ngi jàpp mm-hmm. ministre de l'éducation nationale daaw rek dem na fa maanaam inauguré fa benn tabax boo xam ni gouvernement bi moo ko tabaxal daara ji ay dëkkuwaay boo xam ni euh, war na def quarante chambres yu góor ak yu jigéen kon bi toll na ci trente millions mu ngoog lu wa valeur bu toll ci trente millions euh, cent trente millions. Mhm. donc kon loolu tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dugal seen loxo. Mhm. Euh, gouvernement waaye jëlul daara ji en charge moom waaye wax dëgg yàlla loxoom. loxoom mi ngi ci kon indiaza yu mel noonu daara ji tey mi ngi ko fay def mhm. tey boo fa duggee ñu si bari dangay naan moom daara ji xanaa du moom moo doon sàkketu démba waaye alhamdulilahi rabbil alamin maanaam euh, ñu koy dëkkee ña nga fa euh, donte doyul parce que daaw rek alaaji As Ndaw mii ñu lay tuddal léegi tabax na fa tamit benn immeuble bu mag a mag tuddee ko immeuble Ahmad Saxiir loo nga xam ne dalukaayu gan la. Mhm. ak yu mel noonu jumaa jañ fa mujj tabax ak yëpp. Euh, teen bi fa alaaji kii ah, Alioune Souwaane tabax yëpp ci wàllu tabax la génnee tamit maanaam ay boroom xam-xam yu mag a mag tey jii foo teg sa tànk rek maanaam ci secteur yëpp ci réew mi di nga fa fekk doomu daara ji ah, moo loola boo ñëwee fu mel na Dakar tey loola day dëggal ci mébét yi sëñ ma Saxir daan wax da daan toog buy waxtaan nit ñi ba ci yàgg hmm. euh, jafe-jafe daara ji yooyu mu ne man de bu ma yàlla mayoon am taax fële ca Ndakaaru hmm. la fay génnee ñu koy loola yàlla def nañ tey am nañ ay waqf al islami boo xam ne ñaari immeuble la fii ci ndakaaru la cay génn wax dëgg yàlla mu ngay jëm ca liggéeyu daara ji ah. ñi ko defal ñi ko tabax tamit def ko waqf ay doomi daara ji lañ hmm. waaw macha allah eh, jërëjëf euh, Cheikh bu ñu la déggee mooy kon mel na ni euh, daara ji injaazatam comme li Ahmed waxoon léegi moom nga wax bi ci ëpp solo mooy defar jëmmi doomu aadama nga dikkaat firndeel ñi it professeur Mouhamadou Diouf mu ñu doon wax léegi eh, ni mu demee kokki eh, na mu fa jàngee dama fa génnee waaye wax ki wax na lu am solo sax benn ni dugal nañ ko daara ñaar fukki at ju dóobu loolu nisiru bàyyam la bu yàlla yeggalee ba mu yeggee ci noonu eh, kon na ni kooku ko xam la Eh, nga feeñal eh, ku mel ni professeur Jim Darame ku ñu xam la moom it. Mm-hmm. moom it macha allah maa maa ngi koy gërëm sax parce que alqa bi mooy ki nga xam ne mooy def eh, itisaal ak ñun. Mm-hmm. daaw ak ren yëpp mooy def itisaal demandé kokki jege si ne dañoo bëggoon ku ñu ci dalal. ñu jox ko rendez Eh, mu doon ko wax ku xam ku yitteel daal wax dëgg yàlla xam nañu ko ci xam-xamam xam ko ci njàngam ñu bokkoon it dajee foofu ci Égypte yàlla dellu si ko kon mel na ni tudd nga fi ñu bëri maa ngi xam sax suñu mbokk bu nekk foofu actuellement bu ñu wax si di eh, xaali ñang xaali mm, ñang xaali ñang def naa Oustaz xaali ah, waaw muy waaye ku mën tafsir ku mën luxa nag waaw moom tànneef la macha allah Eh, foofu la nekk léegi na mu ngi jàngale foofu ñoo ngi koy nuyu di ko ndokkeel ci bés bi ay eh, alaaji soow ñu ñëw ak yow ba tey ci réalisateur yi daara ji eh, li nga xam ne réalisé nañ ko mm, alhamdulilah rabbil alamin réalisé bi nga xam ne moo ci ëpp solo yaakaar naa moom la mbokk yëpp wax mooy defar nit ku nite mm. parce que nit moom ku sa bopp jëm war a say tànk feetu suuf nit la <laughs> waaw mi nga dox léegi nag nite ga moo moo moo ca kon moom lim njëkk a def mooy defar nit ku nite koo xam ne mhm. euh, ku gëm boppam la xam ne moom mi am na lu war a nekk ci moom mhm. ba mooy yóbbu sax ba mbooleem ñi fi génne te euh, yor ay daara di jàngale euh, ñu fexe ba ba tax diit leen ba nekk benn mbootaay boo xam ne mhm. dañuy dundal njeexin li nga xam ne moom la si Ahmad Saxir Lo defoon ci noonu ba kenn ko ji ne fu mu nekk di ko fa di ko fa tasaare bokk na ci yi nga xam ne itam <coughs> daara ji Eh, yàlla baaxe na ko ndax xam nga wër rek ñu jox la nga dem yóbbu ci daara ji ñu lekk bu ëllëgee nga waraat eh, yaakaar naa eh, nit boo koy laaj bisu set mu di la jox te du gis dara di ca di ca di ca dolleeku bu yàggee mu xaw a yàlla rek ngay laaj mu di la jox bis bu set di yokkaat <laughs> <laughs> léegi loolu moo tax moo sabab bi mbootaay gi génnee mbootaay gi nga xam ne ñoom ñooy tudd ñi génnee daaray kokki hmm. di taxawoo Eh, di dox ci bi waqf bi ñëwee nga xam ne lay génn ci waqf ba ma ngay dem ca daara ja mhm. waqf bi itam ay nit jël seen alal yëkkati ne man lii maa ko def waqf ngir yàlla mhm. ah, muy dund la cay ruus di dem ci daara ja bokk na ci li ñuy Kër Momar Sarr lu ñu fi am ci suuf soo xam ne da fay bay lu mel ni ceeb wala ay fruits yoo xam day jëm ci ay lujum yoo xam jëm ci daara ji alaaji am na ku ne ci yoon yi côté ñëw <coughs> allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, Habibou Guèye bu fooy wootee. maa ngi wootee fii ci Dakar. yow la ñu déglu waaw man damaa bëggoon a xam daara ji ban at ban at la lañ samp daara ji. lañ samp daara waaw daara ji at ban lañ ko samp bu ah? ah. ko xam. waaw. waaw am ah ban at lañ ko samp laa bëggoon ma ne 1939 lañ wax fii 1900 1939 waaw waaw parce que man dama déggoon ñuy wax ay xal loo yow 1800 nga déggoon Allô? dana duggaat mhm. euh, waaw nga xam ne di def am lu cay di dem di dundal daara ji ndax euh, am na lu lu jar seetlu mooy ndax euh, daara ji mi ngi dox ci réseau bi di jàngale franco arab ñi mokkal alxuraan nekk ci daara ji di jàng franco arabe ñiy jàng alxuraan ñu leen di jàngal. dégguma nga ne daara ji. ñu ngi am programme ki mokkal alxuraan nekk ci école bi di jàng franco arabe di continuer ko. di continuer jàng ba nga dugg ci école bi da mokkal pare. loolu moy objectif bi lay dugg ci akam da ngay bokal alcorane rabb ay na alcorane nag kon legi ñan mo leen di ñan ñoo école xam nga loolu ab sen sewlo bo xam ne du jar di leral moy li quelque ci yone allo waaw mbokk mi kan la euh sor bi jeer ba ma ngi la koy delo Cheikh Niang Diaga ah Cheikh Niang Diaga Cheikh Niang Diaga. Cheikh Niang. Cheikh Niang waaw. waaw Cheikh yow la ñuy déglu. <coughs> ñu ngi ziar si sëñ doomu jot. waaw. Ah, bu baax a baax. Mm-hmm. ok. Ah, tey bëggoon a sànn ay kaddu rek ci émission bi. waaw. Ah, di wax ne maanaam góor gi ñu waxtaanee ak daara ji. Mm. moom comme ni ko mbokk waxee rek nekk na koo xam ne maanaam li ëpp ci euh, réalisation Mm-hmm. moo tax nit ku nite. waaw yaakaar naa ne comme mbokk yi ñu si ñu si ñëpp léegi léegi léegi léegi. Mm. ku am solo taxawaay bu dëgg dëgg mënoo def lu mu noonu. Mm. waaw te itam li ci gën a yéeme mooy li nga wax maanaam comme sa ku mujj ëllëg da ngay jàng. Mm. maanaam loolu itam daa mel ni baax a baax. comme maanaam bu ay daara su ko. dama nekk nga fay leer sa kéem laay kàttan kon nag maanaam liggéey boobu yàlla yàlla gën ko wóor gën ko gën ko barkeel. yaa rabbi amiin. ñu ñaanal si motaar mu fa nekk

Euh, ña fay jàng alquran lu mel ni euh, ba ci xaadi boobu nga tudd ah, kon association bi ñoo taxawu euh, ci seeni réalités yoo xam ne ñu ngi koy def mhm. di lii génne ci ñoom ñi di ko dajale ut jàngalekat yoo xam dañ leen fay féetale ci daara ja mhm. ñi di fa jàngale mhm. nga xam ne moom moo yor wàllu majalis ba ñuy jëm ci école ba noppi ñuy jàng téere yi nga xam ne Eh, moom dañuy jàng ci ci jàkka ja mhm. alhamdulilahi rabbil alamin mooy ku ku ku yàlla may itam ci ci ci googu wàll loolu it lu bokk la ci li nga xam ne li li association bi réalisé la ci ci ay doxalinam lu mel ni li ma doon wax ci kër Momar Sarr tool bi nga xam ne fa la ñuy béyee loolu it eh, lu toll yoo xam ne dañ fay bay te lu fa ñor day dellusiwaat ci daara ji yëpp ay xeetu réalisé la yoo xam ne eh, day weesu di di di di ci xalaatu si Amadou Sakhir Lo li ma waxoon ne su ma amoon fële ca Ndakaaru ñu jël ki ci yoon wi te ñëw allo allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Cheikh Tidiane bi yaar nañu ko baax. maa ngi la koy delloo mbokk mi kan la. daam la di ah. daam kan di wootee fas bëriwul. ah daam kan fas bërigo daam yow la ñuy déglu. ah ñu ngi leen di ziar rafetlu sa indi te xam ni bokk na ci liy yokk daara di ñaan yàlla yàlla yàlla kàtt la. may wax ni télé yu bëri waroon nañ di def nii pour maanaam ko li nga xam ni ñooy taxawaayu islam wala leen ñor mhm. nag ñi nga xam ni ñu nga ko muy doom li nga xam ni génne nañ sa tey mhm. ba taraanga dab la leen daa sutura sa àdduna dab la bàyyi xel daara jëta jëfar teewum mhm. li ñaa nit ko nga xam ne demoo fa woon mbaa sa jooju xel ndax naa ne ku fa dem ba taxaw bu ko tey di nga ma fa xam ni yaakaar ni yàlla kese rek foofu maa ngi ñaan képp koo xam ne en quatre mën a dimbali nga dimbali ñooñu ñi nga xam ni ñooy avenir bu Sénégal ëllëg ñi nga xam ne ñoo war a mën a gàddu التي آه، آه، تضعنا في بني ñuy mën a def ba am ay jàngalekati alquran yoo xam ne tout tànk yii di jàng alquran dañ leen di taxawu ci njàngam alquran moo xam ne ka leen di jàngal du doon koy nekk ci école ba mhm, mhm. ndax euh, ñiy jàng ñun ñëpp bañ nekk ci daara ji daan jàngale ba onze nga dem ci école ba diggante onze heures ngay jàng ci classe bi te programme bi ñetti at nga fay def daal am defaat ñetti at am idaada yi programme bi noonu noonu la noonu lay doxee te téewul da nga koy booleeg njàngale alxuraan nga xam ne ruuxu taawun boobu si amul saxiloo defoon ci ñun loolu mooy mooy mooy dund ba ba ba ba léegi kon réalisme bi ëpp solo mooy defar nit koo xam ne dafa nite nga xam ne tey fu mu mën di nekk day gëm ne man mii kat nit laa koo xam ne am na responsable bu tege ci sama kaw boo xam ne man war naa koo dundal mottali itam mission bi nga xam ne moom la la si Ahmad Saxiloo dénk ndax dafa am lu ñu la jox nga war koo jox keneen alquran moom dañ koy joxante ci jamono yonent alayhi salaam ba léegi kenn mënu ko jàngal sa ku ci ne dañ la koy jox nga jox keneen nga jox keneen kon mission boobu moom ngay dox ngir nga dem jox ko keneen alhamdulilahi rabbil alamin loolu bokk na ci li nga xam ne itam euh, Cheikh Ahmadou Sakhir Lo wala daara ji réalisé nañ ko ngir euh, taxawaay bi gën a gën a jërëjëf euh, alaaji kon buñ la déggee mooy mel na ni li ñuy tuddee xeetu wax am na ci cër boo xam ne mm. doon na mébét ci dundam mm. yàlla mu am loo ko woon am taax ci ndakaaru la mm-hmm. cay génn di dellu si kokki mm-hmm. mel na ni yàlla dogal na loola mm-hmm. ay jaamu yàlla ak loo xam ne doomi daara ji ñoo ko réalisé lu ca mën di génnee ëllëg ak nu mën tiki toll ca daara ji la jëm wax fa fi wax fa fi wax fa lañ ko def eh, nga feeñal ne kon loolu yëpp eh, buñ ko seetee dafay dellu ci ay idjazaatam nga xam ne moom moo ko réalisé loolu kon mel na ni daara yi kokki suñ ko seetee eh, foo niit wala nga natt ko ci Sénégal danga fa fekk loo xam ne kokki moo ko jëmmal mm-hmm. moo xam muy borom xam-xam nga joxoñ lu am solo ne bu ñu seetee ne dafa comme ku mokkal da nga fa daa jógee dem ca école ba jàngi mm-hmm. ñi ne ci daara ji di jàngale lu leen fay dëj loolu lu jaroon na laaj la parce que mm-hmm. Mm-hmm. parfois sinon man daara ji mën na widd mm-hmm. ñu dem ba si yàgg dootuñu am lu fa nekk nga gis ne ñu def méthode boo xam ne ñooña ku bàyyiloo nit yitteem wala nga bàyyiloo ko këram dikk dëj ko ci place dana am loo waarloog moom loola dëj leen fa nga tudd ci it njàngale majalis ba firndeel ci ku ñuy wax xaali ñang xaali moom ñu xam ko bi kulli sara li ma xam ci moom mooy mën na sañu ma wax ne lépp la xam sañu ma ko mais xam naa ne daal moom borom xam-xam la. macha fànn boo ko cuq nag yu bëri mën na caa dem ak yow wax la ca te lu leer na ñi lay wax nag. Mm-hmm. macha allah yàlla bu ko cat jiitu mais borom xam-xam la xam wax dëgg yàlla. tey euh, kon euh, ni ñuy def mooy Ahmed Mokhtar. Ah. bëggoon nañ xam euh, njàngale mi kokki ndax da ngay dégg ñu naan la kokki boo fa demee mokkal alquran ndax njàngale mokkal alquran kese la. wala dañuy jàngale alquran boole koog njàngaleem école arabe boole koog téere majalis yi alxuraan kese la naw o njàngale mu nu demee waaw waaw waaw ah, kii eh, alxuraan moo ci jiitu xam nga xam nga li li eh, Cheikh Cheikh Niang waxoon léegi. Hmm. oustaz ana muhammadiyun hmm. baat boobu muhammadiyu boo koy topp si masaxir day feeñ ci côté yëpp. Hmm. da koo jël bu jëkk ci méthode jàngaleem. xam nga yonente bi jàng nañu ci commencement l'islam waxoon laa takk tubu an ngeen gayal bu kenn bind ci ma dugg alxuraan bu may bëgg a jël xasru eh, himmatu sahaaba yooyu tënk ko ci alxuraan karim loolu si mos delloo si daan wax naan daan wax naan doomu soxna te baat doomu soxna li muy jublu mooy doomu jullit parce que nee nee na kuñ defar moo kuñ jàngal mu xam kuñ defar mu baax kuñ jubbanti mu tegu ci yoon kon loolu wax al ilmu miraasul insaani mushtarak ñëpp ko bokk nee na nag baasu baasu uh, xam soxna mooy mokk alxuraan الامام آه، ابن عبد البر وخنا بنانا اول العلم حفظ القران وتفهمه موتام ني بريمير ايتا بي موم موي داغا جان القران الكريم با مكل كو جان جان القران الكريم جان وير با مكل كو مكل وير با تي بري نك امنا امنا امنا امنا امنا ينين كير مانا مانا مراحل مراحل كواز مراحل ابتدائي نيت ادلا سا دا دي نيت ادلا saan yooyu ñetti at la njàng moo xamante njàng mu njàng mu lépp lu war a jàng rek hmm. da nga dégg da nga taan yi mës da la dañuy jàng français dañuy jàng arabe dañuy xam-xam yi jaaju dañuy même même anglais ci école bi rek ñu koy jàng foofu ci daaree kokki ci climat bu saf sàpp alxuraan ak bu saf sàpp yàlla subhaanahu wa ah, eh, yi pareegul bi nga xamante ni mi génn nañu ren def kokki 37 candidats dañu amoon 37 hmm. yi 27 yëpp du fis dañu aw d'office lañ lañ am sett yi ñu ngi deuxième tour bi ñaar doomu ñu amoon mu résultat bu kaay boo xamante ne bi nii BFM moom kii génn ko BFM ñu ngi ciy génn ko maanaam ñu délibéré tey wala suba mm-hmm. daaw seen résultat BFM ak CFE yëpp cent pour cent la loo xam ne njàng mi njàng mi ni mu wéree mm-hmm. waaw maanaam ña fay jàngale arab nag moom moom moo leen moo leen moom moo leen di fay ñu bëri moom moo ko affecté ña fay jàngale ci digg ci ci bi bi doon ñu ci Badara Thiam. Hmm. Badara Thiam dafa def liggéey bu réer yi. moom ñu koy ñaanal taxaw taxaw waaye ñooy jàngale arabe français kay yenn matière histoire géographie yooyu ñoom sëñ moom mooy sëñ moom mooy fay ci boo xam ne kon ñàngale ma kon lépp ñuy jàng rek. Hmm. dañ koy dañ koy fa jàng jàng mu kii macha allah. jërëjëf kon mel na ni bu ñu la déggee façon njàngale ma foofa. Hmm. Euh, commencement bi mooy nit ki day mokkal alquran. bu mokkalee door a taxu dem ci école bi. école bi euh, ibtidaay yi ñetti at la ihdaad yi ñetti maar Alassane yooyu ñetti at mhm. feeñal nga ne eh, bu ñuy dem ci concours national bi bac bi wala ñu dem ci brevet bi résultat yu baax la ñuy am mhm. daaw wane nga cent pour cent la ñu am demee it fi na eh, li nga jotagum Euh, sept moo ci demul jàllutoon te sept yi mel ni deux moo des. deuxième tour. deuxième tour ah, mel ni loolu résultat la yoo ah, xam ne jafe na lool. kon mel na ni njàngale ma ne foofu programme bu baax la ñuy jàngale. ustaas yoo xam ne it ñu am expérience ci wàllu jàngale moo fa nekk wala ay maître mm-hmm. euh, tuddee ko noonu la neex. Euh, feeñal nga ne kon gouvernement bi comme ni ko seex waxee woon ñu ngi ciy dugal seen loxo ci wàllu ndimbal xañ na jëluñ ko en charge mais ñu ngi dugal seen loxo. ndax am na ci jàngalekat yoo xam ne ñoo leen fa affecté di leen fay kon mel ni loolu it euh, ndimbal la li wolof di wax ne d' accord xañ ne jël ko en charge la ñëpp di ndax li ñu tuddee am njàng ci réew moom gouvernement la war mm-hmm. kon képp koo xam ne yaa ngi cee dugal sa loxo it moom ngay jàppale mm-hmm. ku koy jàppale ci la fi nag war naam am la féete kon mel na ni am na fu mu féetee xëy ne dañoo xam ne doyut bu mm-hmm. doolee ñu jël tey Cheikh ñu dikk ci yow euh, dañuy jëkkalanteeg waxtu ndax li des ci waxtu yu bëreetu mm-hmm. importance su bés bi ngeen di organiser muy yow mu tëddaamu mm-hmm. boo ko doon natt nu muy toll pour yow euh, importance bi de euh, Serigne Cheikh mm. euh, gis nga jullit bu ne da koy natt ci bopom rek mm. dama ne man sama bop su ma toogoon tey mm. damay wax ne su ma bëggoon liggéeyal alquran lan laa sas sama bopp pour mu fi jógee ëllëg mu man ma fekk ci sama mel من تبسا سلام دفن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بوغي سي غيسي نظام وقف بي ني داري كوكي يمل نونا لا كو بغي ليغيال يالا مانام ديفالو كو سيغ مختار نار لو ما فا نيك ديفالو مات صخير امنا صاح لن ньо ديني دي خير banaan liggéeyal sëñ Mor Saxiir ñun leen déedéet liggéeyaloo sëñ Mor Saxiir daara ngay liggéeyal ak alquran mhm. ndax sëñ bi dafa teel a avertise lu mel noonu dana bokk na ci lim daan wax daan liggéey bi mhm. ko yaakaar ni yaa ci teg sa loxo muy dem teggil wallaahi ku yaa teg sa loxo muy dem rek teggil nga xool mhm, ba ci loolu li koy firnde yàlla daf ñu ko wan mooy ba muy génn àdduna ba ko yàlla di moom 30 mars 1988 yàlla na ko yàlla yërëm toog na ñaari fan yi ko jiitu fekk mu feebar hmm. daara ja amul dara lu fa nekk ci dund hmm. bañ a fa nekk jaaxle daara ja amul dund naru ñoo am lu ñu lekk te sëñ bi mu ngi nii tëdd ci kaw lal amatul ci moom yaakaar bis bañ koy waajal bu mu àdduna bañ koy waajal 30 mars hmm. ñaari camion wala ñett yoo xam ne ambassade bu Italie la jóge sa ceeb ba fees del ñëw di ko indi ko ndimbal ci daara ji ñuy laajte ana sëñ bi ñu ne ko ki ngeen di laajte de moom la ñuy waajal nii kon loolu am na dars bu ñu suñ borom subhaanahu wa jàngal kon waxam jum doon wax ne ku ci teg sa loxo yaakaar ne moo tax muy dem teggil mhm. am na lu muy teg kon ku ci nekk lan cay def mhm. du sëñ maxtaar nga koy defal du sëñ mat saxit mais alquran ngay liggéeyal ak yóbbal pour pour sa bopp mhm. ëllëg moo tax ñu ubbi nizaam waqf bi dëgg la am na ay cotisation yi ñuy def chaque weer ku nekk damm ci sa poos waaye tamit waqf bi dafa am solo boo mënee dagg sa poos dara nga yóbbal pour ëllëg nga xam ne yentu saa sallam ni mu ko misaalalee danga koy joxe ñëw yowmal qiyaam fekk mu toll ni ay montagnes yu rëy nga naan lii lan la yàlla ne la lii nii benn loo joxe woon la ma yaral la ko ba mu toll nii comme nit ki ni muy yaree ab moolam su ndaw mu dem ba mujj nekk am naaru góor mhm. donc kon yu mel noonu la moo tax mhm. euh, importance bi mu am mhm. du ci ay jëmm lañ koy xool waaye ci liggéey ba fa nekk ak maanaam euh, dundal alquran ci kaw suuf moom lañ koy moom jërëjëf Cheikh wax nga wax ju solo de sëriñ bi moo ko wax nekku yaakaar ne sa loxo bi ci teg moo tax muy dem teggil mm-hmm. eh, wax ju mel noonu dama koy faral di sukkandikoo ci liggéey bi may def damay wax toujours ne mm-hmm. eh, amul ku fi mënta ñàkk mm-hmm. maanaam ku mënta ñàkk fii ci liggéey bi ñu def ni amul <laughs> sëriñ bi loolu la wax ci daara ji rek ku fi mënta ñàkk amul ku jàpp ne mënuma fee ñàkk ba daara ji lu dox ngay nax sa bopp hmm. ñëpp fi mën a ñàkk hmm. ndax moom xam nga nekkatu fi hmm. te ma ngay continuer dafay feeñal ne du moom du keneen ki jàpp ne moom la ki sos daara ji muy borom daara ji muy yàlla moo koy doxal ku fi jógee rek keneen ko keneen seere ku gaare keneen ñëw taxaw mu doon wax ju am solo joo xam ne sosluwaay bu eh, ku am wéeruwaay bu rëy nag moo koy wax koo xam ne yóbbalam yàlla lépp yàlla la mm-hmm. nga may wax lu am solo li ngeen di xomp ci seen poos yi d'accord kenn ku ne koy defal wa ma ko kenn mm-hmm. euh, parce que yàlla la koy bindal yool ëllëg nga soxla ko fa nga jëm ñëpp a koy soxla mm-hmm. tey euh, ñu ñëw ci yow alaaji importance bi bés yow boo ko bëggee natt noo koy natte waaw ah, alhamdulilahi rabbil alamin importance moom day daal di am solo lool ndax day delluwaat ci la ñu fa dajale Euh, la la ma waxoon ne euh, euh, dajale daje fa ngir nemmeeku njabootu sunu borom bi tabaraka wa taala moo ñu fa dajale kon importance bi day daal delluwaat foofu day delluwaat sax ba tey ci li seex wax léegi nga xam ne nit ki li muy joxe mu jëm ci daara ja joxewu ko ngir daara ja waaye da koy joxe ngir boppam ah, da koy joxe ngir boppam ngir li nga jox yàlla moom moom yàlla la nga fa la ko fa mm-hmm. لين أخ ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله أقول يا لأخ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعيف له أضعافا كثيرة كون امبورتانس موي داجي سيت اي ديمبل ني يوبو كو تي دارا دي جوخ كو نجابوتو سونو بروبي تبارك وتعالى ني فنيك ني ام تي اي وقتو يو خامني دا ييكني اي ديمبل غي ني واي دو ني ام تي بيس بوبو رك تي لاج كو ني واخني كيب كو خامني مان كو جامونو جو نيك لو ام لو مانا ديم فوفو xaaruñ bis bi muy muy muy muy ñu di ko dajale ci bis bi waaye lu fa waay mën a def ñu ko mbokk yi di defee lu mel ni am na ay mbokk yoo xam ne jamono ji nekk nag ña nga fa di nemmeeku euh, daara ji ndax am na li sëriñ boobu di def ndax su benn waaye bëggoon euh, dimbale daara ji te moom par compte bancaire la ko mën a def am na compte bancaire bu mu ko mën a envoyé alhamdulilah rabbil alamin loolu bu jokkoo ak secrétaire général ci numéro yi ñuy joxe bu ñu ko mënee joxe muy 653 91 02 77 653 91 02 kooku moo nekk secrétaire général ci association bi boo jokkoo ak moom dara la sa sa ba di xam ne juju léegi ne euh, ci teg sa loxo euh, euh, yëg ne fam sa yokk nga xam ne mooy ne yaakaar naa kenn seen suñ maxtaar aku sikk sàkk wax na la tàmbaleel rek mbir moom yàllaa ko yor ba ma yatawakkal ala llaah fa huwa euh, nga xam ne kon daara ji am na ay mbokk yoo xam ne li waxoon ne su ëllëg jógee sama njaboot gii ñoo koy taxawu mm-hmm. njaboot googu mu doon tudd ne ñoo koy taxawu ñoom ñooy jël seen alal di dundal daara ja ndax am na koo xam ne nee na man jamono ji ne maa leen yoral ndékki bis bu set mhm. xale yi moom alhamdulilahi rabbil saa yu ñu xëyee sëriñ boobu moo leen jox ji ndékki mhm. lu mel ni itam loolu am na ay mbokk yoo xam ne donte jóge wuñ daara ji lu mel ni ambassadeur bu Arabie Saoudite loxom mu ngi fay dugal li nga laaj ne mhm. président mi ngi fiy dugal loxom mi ngi waaye taxut nag ba léegi ñu ne doy na lu dul doy ñu ne doy na <laughs> ndax njaboot gi lañ fay yar di leen taxaw di leen defar yaakaar naa moom la waroon te bu fekkonte ne li daara ji téye ci ab nombre ci quatre mille nangam yi su fekkonte ne ñooñu téewuñ leen ci daara yi ñooñu yaakaar naa bokkuñ ci ñuy tojukaat bokkuñ ci ñi gaa euh, def taal ay. alaaji waxtu wi dab nañu yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaat. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant euh, yow itam di la jotal ak sunu cant bu baax a baax di la ñaanal yàlla fu ñu toll. Mm-hmm. di sant mbooleem koo xam ne am na yéene jël loxoom def ca daara ja moo xam def na ko wala am na yéene ci defu ko. ñuy ñaan yàlla ka yéene te mënagul yàlla na ko sama borom manal di sant mboolem jullit ñi ñuy seetaan di ci déglu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ sama borom defal jàmm ñu dem fa ci jàmm daje fa ci jàmm ñu di siwaat ci jàmm te lépp lu fa waaye def yàlla na ko sama borom nangu te ful ko te yàlla sama borom bi tabaraka wa taala taxaw bépp daara boo xam ne yaa ngi toog di jàngale alquran yàlla taxaw sa jaboot taxaw ña fa yëngatu taxaw mboolem doomu jullit yëpp di leen gën a feddali itam sunu cant di gën a feddali itam sunu kóllëre ak yéen Euh, di ñaanal barab bi yàlla def sama borom def barke yàlla def sama borom defal ñu tawfeex ndimbal euh, di sant ñëpp di jotal sant itam suñu sëriñ sëriñ Cheikh yan kàddu tàggatoo euh, jërëjëf sëriñ Cheikh Cheikh Tidiane bi tey ñu ngi lay sant bu baax a baax cant gi moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ñaari point rek laay wax du yàgg bu soobee yàlla mooy junñu ko léegi ko bëgg dimbali daara ji mhm. sëñ bi joxe ne numéro bi am nañ compte bancaire ak yëpp mhm. bu woowee secrétaire général dina ko wax ndax am na ñoo xam ne dañu bëgg a def lu baax te seen tur du ci feeñ lu bare bare la nag ci daara ji mm. daanaka ñi ciy tudd nii mm. am na ñoo xam ne sax bëgguñu seen tur jib waaye nag eh, am na ci yoo xam ne moom mënut a ñàkk so soññee tax ñu koy tudd mm-hmm. eh, bi may daanee daanelee dama ne woon émission bi di jeex te duma ko tudd ndax eh, def lu baax rek moo am solo mm-hmm. ak xam-xam bu wér mm. damay fàttaliku ba ñuy nekk tuut tànk ca daara ja jamono ay kaset di xew boobu lañ daan déglu say waxtaan mm-hmm. maanaam ci wàllu euh, firaq islamiya mm-hmm. liñ ci daan waxtaan surtout xasootu Karbala ah, maanaam bokk na ci liñ daan wax ba ñuy nekk daara ja boo buggee am safaafiya mm-hmm. maanaam ci al firaq al islami wala dawlal umawi al abbasi da ngay déglu Cheikh Tidiane bi tey donc kon boobu il faut ma wax ko jóge nañ ca daara ja jàngi Égypte def master def euh, taxasus ci firaq wal mazahib wal adiyaan te gisuñu lu teggi la nga daan wax mhm. kon defe naa tey bu ci amoon lu ci jiyoo rek mhm. naa la xoolee beneen bët kon fa mhm. lillahi alhamdu yaa ngi ci waaru yàlla na yàlla kattanal la dëgëral la baril sag maas asalaamaaleykum wa rahmatulah jasakumullah Ahmed Makhtar yan ngay tàgg waaw xam naa di fi mu fi mu daaneel la rek di la maanaam yow yàgg nañ laa suivre baax baax depuis bu nekkee kokki waaw di la sant si liggéey dafa rafet si la ngay liggéeyal moo tax yàlla danaa la aar danaa la allah di fàttali si ma saxir daan wax naan dama ñaan yàlla sama borom mu def daaree kokki xettalu kaay mujj mujj mu mujj jamono ku bëgg xettaliku nga jaar fii ndax daara joo xamante ne bi nii ay junni junni élèves ñoo fay jàng te ko ko doon doo doon perturbateur doo doon enrichi doo doon agresseur kooku kooku réew moom war war war naa war naa ndax ñoom ñoom lañuy liggéey ndax pénc moom ñett yi pénc mu amul rek pénc pénc mu am jàmm di ñaanal rajo Maxtaar Naar Lo maanaam la nekkoon sëñ moom moo nekk ci moom taxawaay bi ni mu yàlla asaar ko yàlla euh, sàmm ko aar ko guddal fanam bu baax ba ñu koy jàppale ñoom Baye Fallou ñoom Oustaz ñoom ñëpp di di di di ñaan yàlla yi ñëpp ñoo ñu émir ci bis yàlla nangul ñëpp euh, kon bokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen ta jàkkaarloog seen télévision de TV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jéggalu ñoo ngi dellu gërëm suñu invité yi daanaka ngërëm li mënoon na ñàkk sax parce que li ñuy def suñu waaru gar la eh, damay faral di wax toujours ne ñu invité la nga kontaan ba ne ñu waaw góor ak nga mer ba ne ñu àccam mooyam ci man li may def parce que dama jàpp rek ne man sama waaru gar laay def boo bégee baax na soo meree baax na sama yoon nekku ci mais daal danaa def li ma war a def rek eh, kon loolu moo ci am solo mais ñu ngi leen gërëm ndax eh, daanu dajut suuf parfois nga defal nit teraanga mu mu def ko xalal te loolu fekku leen kon ñoo ngi gërëm ahmed makhtar di ko ñaan yàlla tawfiq di gërëm eh, alhaji saw di ko ñaan yàlla tawfiq di gërëm cheikh di ko ñaan yàlla tawfiq di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu prono de son di gërëm waa récit bi di gërëm caméraman yi di gërëm it ñi nga xam ne ñoo ñu féetee ci wàllu éclairage liggéey bi ko xam sa loxo tàbbi ci ba jaami yàlla man ko seetaan ñi ngi ñaan yàlla boole ñëw yow yiwi ñi ngi leen di jox rendez-vous dox daje ajjuma bi di ñëw insha allahu maulana wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jazakumullahu khairan jërëjëf طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب